moo Manson Ousmane Sonko mi nga ni doole mu ngi gën di yokku yéenekaay bi ne waxuma la

Gambie tam itam dinañ seen ko merci beaucoup à Gambie gis ngeen Gambie ak Sénégal ay doomu nday lañ ay doomu bay lañ lu woku Gambie pour Sénégal ñun ñepp ben lañ waaw na Sonko di jolli nako baru dégg waaw waaw Sonko na mëna la rek ñun ak yeen ben lañ waaw lu woku Sénégal ak woku Kodi Gambie waaw nañ jappalante ñun ñepp ben lañ bak Seydina Mohamed Allez Gambie bravo bravo Gambia bravo Gambia sama copain Gambia yëpp maa leen di bëggee Sénégambie barke Seydouna Mohamed gis nga de drapeau di flotte sa kaw waaw waaw Macky mayul sa bopp baax na bis boo yëngalee fii gars ba traite Gambie yu jóg ak traite sénégalais jaxasoo fii ñu ñëw Sénégal wallahi la sax. voilà kon mbokk Gambie yi ñu ngi leen di nuyu ya, lii day wane ne ndeysaan lu metti Gambie metti Sénégal lu metti Sénégal metti Gambie ndeysaan doomu ndey gi nga xam ne lañ nekk. doomu ndey gi nga xam lañ ak ak ak mandeng kat rek olof ak ñoom it seen président de la république ñëw irresponsabilité gi nekk ci moom dégg nga ñëw bëgg a jaxase ñëpp ci intérêt personnel am te lépp ay sénégalais ñoo ko ciy jàppale. waaw mbokk yi tey taal nañu ñëw nañu nag pour waxtaan ak yéen euh, indi xibaar yi nga xam ne moo xew ci biir Sénégal bala ñuy def dara nag dañ ciy jaajëfal waa États-Unis ndax ndeysaan def nañ loo xam ne maari bay taal yi waaye bala ñuy dugg foofu yëpp dañuy indi ay li nga xam ne ay leeral la ci réew mi ak li nga xam ne moom lañu war a xeex ñun ñëpp ñu déglu ndool lii ñun ñëpp tey nag duñ yàgg ci ligne bi waaye dinañ leen ubbil fexe ba xajal leen kon gars yi nañ ndool lii ñun ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah attention attention attention technicien bopp bi li ci nekk. Bluetooth mode. nañ teewlu ndool yi ñun ñëpp. pour que ñu xam fi ñu jëm. ñu xam ñun ñëpp fi ñu jëm nañ teewlu ndool yi. Mm, maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay. xam naa li ma inspiré pour ma tënk am na chronique bu gën a gudd. max volume. lay doon ca bële. Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum du ma awaat ci wax ji ni ko waxee. mais tënk ga mooy attaaya yi nañ ni ceebu jën yi wala mbaxal yi wala ceebu ganaar yi wala lu mën a doon yaasa yi bu taxee ak attaaya cay tegu ba dund wereyaan ñu nar cee sax juróom benn fukki at ak ñett ñu nekk ci mbuumub jaam la ko jiitu woon xam ngeen tartar ya ak ña ca faat surtout ci jamonoy feder loolu ñu ngi ci indi lu yaatu gannaaw téeméeri at ak ñaar fukki at ak juróom-ñett te CP ba ba ñu tasee fële ca ndar muy conseil privé bi lire rapport Merlin ak Leclerc faire comparaître Cheikh Ahmadou Bamba dóor ko ay chef chef d'inculpation yoo xam bu doon tayee duñ ca bàyyi baatu théorique duñ ca bàyyi baatu salafiste duñ ca bàyyi baatu baatu intégriste duñ ca bàyyi rebelle duñ ca bàyyi force occulte duñ ca bàyyi dara tey jii beneen doomu sénégalais taxawati ci situation ba ñu dóor ko ay chef d'inculpation bi ñu ñu ñu ku ko ka def loolu nag ban taxawaay la laaj ci ab sëriñ ban taxawaay la laaj ci bu ma ne sëriñ nag bàyyiwuma kuy jàngale alxuraan di soxna daara yore daara wala soxna si yore daara walla sëriñ euh, góor gu yore daara ñu koy wax sëriñu daara bàyyiwuma ci kenn bàyyiwuma sax ñenn nekk dañoo fonk alxuraan ba nekk ndeyi daara waaye bàyyiwuma enseignant bi nga xamee ne xam na ni réew war naa moomaat bopp ndax dañuy sax ci yenn quartier yi booy dégg ñiy manifester ñu ne ay wuyu lañ ndax ñooñu foofu lañ toll parce que gëm nañ ni ñoom ay ay nanti lañ leen di woowee ñoom jàmbatuñu dara lu sukkar di jar mën nañ koo jënd lu diwlin di jar mën nañ koo jënd lu ndawal di jar mën nañ koo jënd ndax am na ci ñoo xamee ne dañoo luubal xëy na am na ci ñu luubalul mais am na ci ñu baree bari dañoo luubal ndax ay milliards moom yombewul noonu moom ndax milliard benn pour mu jeex ci tënk pour ñu ko xamul juróomi junni nit ngay rangale ku ne nga jox ko ñeent fukki junni milliards bay doog a jeex am ñoo xam ne ay milliards lañ yore te ay jamono yorewuñu woon dara te ñu activité buñ mën a wax rémunératrice rémunératrice de revenu bu leen ko mën a may kon mouni gemi yalla mouni koufi moun, moun Senegalè, sa man lolo mou ak gemna. Mou atak moun nasak. Mouni meti yandri, mouni gemi mouni yalla ki, mouni koui degenon, mouni se hanayou bal, mouni bat tabak nasyon. Mouni mouni, mouni am dene fason sitwayen mouni doundou, am dene patrimotizm moun kamele, am ap devouman pou lèr patre. Mouni se lèr pa lèr kaj Senegalè. Mouni lèr mètena. ñu nar a dund dundu were yaan gi rek ba kañ sa suuf si li ci nekk nekkul ci suuf yi réew nekkul ci France nekkul ci Amérique nekkul ci Dubaï nekkul ci Qatar zircon lithium or fer phosphate gaz pétrole ak benn jeunesse boo xamee ni am na continent yu la ko ñee parce que maanaam moins de vingt ans yi cinquante cinq pour cent boo demee ci système onusien bi loolu la ñu wax Mokri, il était temps que nous mouamat sur nous réo. L'Iwa diaspora bidef, mais bima kholé Google, l'inumiti sénégalais à l'extérieur, pour 700 000, on est 18 millions, selon l'Uniwaknako, ANS de Wako, mon agence nationale pour la statistique et la démographie, créée en 2005. Ou alors, il y a 700 000 personnes

lañu jël ay chef d'inculpation ak tam itam séquestré ko moom te séquestré ko depuis le vingt huit mai bañ ko bàyyee daanaka ñaari weer yu man ci ñetti fan ñu bàyyi ko tëgaatuñ ci quelque ay fan yu néew ndax mën na ñeenti fan sax buñ ko bàyyee le vingt quatre jëm vingt cinq téyaat ko le vingt huit di tolloog fukki fan ci muharram mille quatre cent quarante cinq de l'hégire mooy bisu tamxarit ci àjjuma ñu téyaat du ma ñëw ci vingt huit bi mu tolloog xurufu Tuuba am na lu ma ci gis te itam 7 fois 4 égale 28 te 7 boobu dafa ànd ak Ousmane ko mais loolu ñoom xay na xamuñu ko ñoom Macky Sall ak ñi ànd ak moom te la ma waxoon fin août 2022 wax ko kilifa ab affairiste ni ko kan mi lu mu xóot xóot Macky Sall moo moo ci dugg waaye ku gis tey jii mbiram nam demee New York mbiram nam demee woon France mbiram nam meloon euh, nu mu tuddati Portugal te gisagul dara nam nam meloon Angleterre gisagul daal Macky Sall salfaañe na les institutions de la république mu viole fermement faire respecter respecter et faire respecter les lois de la république moom moo dem jëkk détruire bala maa dee mu naan de dana looy protéger dégg naa mu ne am na sëriñ soo ni ñoñu ay dealer lañu serigne so xamé ni yaa ko wax dañoo d'accord pour nga continuer yore réew yow man nga yore ay DG ay ministre ay député milliardaire fan nga ko gis ci àdduna sàcc sunu alalu réew léegi nga ni sax ku ko waxati sax ma tëj la kaso man Mansour Faye taf yëngal mii ñoom mbaam mbay ñang mbaam mbay ñang mbaam mbay ñang ñoom ñeneen ñoom Diouf saar ñii fan lañu war a mën a nekkee milliardaire Amadou Ba naka lay mën a nekk ab daanaka ab milliardaire yore milliards yu dul jeex am cogg yoo xam dañu leen naan ay sëriñ ñu ànd ak moom ñooñu ay dealer lañu du ñuy ñooñu weñ wu toon ci am xayt lañu loolu la sëñ Touba wax dem ca fatumaan si jaari Abdurahman ku sant Sall moo doon moo teg ci lettre boobu moo ko teg ci loxoy xaalima jaxat talat jor xam na xam na la mu wax man mobilisation laa wax mobilisation bii diaspora bii def ñun maa ngi invité hommes et te yéen jigéen ñi ngeen yaakaar ni kaay jàll ci jëlagu lal ba wala kaay géew ak poser ay xef wala monter ay xef ak di tiktok suba ba ngoon ak nekk ci ay statut ay ay lekk ak ay cong bu dee yaakaar ngeen loolu taxoon yàlla indi leen ci kaw suuf da ngeen a jóob impliqué wu leen ci liy daw politiquement économiquement socialement culturellement ci réew loolu lañ leen invité kon day mel yàlla amul xarañte bu doon da leen fee rek lekk ak naan ay ja jàllal ci jërëgu laal soyons sérieux bari na nag vingt quartiers mën naa la ko waxal yoo xam musuma leen a dégg ñu ñàkkal réew mi man foofu Dakar quatre vingt ba quatre vingt quatre fi laa nekk te quatre vingt sept bi ma jógee Kër sama première vacance maa ngi ñëwaat Sacré Cœur deux kon quartier yooyu ñoo na ay amitié un deux trois daanaa jàngale yaakaar naa amitié deux maire bu bëggoon alxuraan quartier yooyu naan Sacré Cœur un ak i deux ay liberté yeeg HLM yeeg yu ma xamul xam naa léeg-léeg wax ju àgg ab dof moo koy moom nañu leen xeexal réew mi gis nga li diaspora yi def ñoo leen ko war a gën a man dix-sept millions ñoo nekk fii di xulli bët naan xeex bi na ko diaspora bi xeex gàcce ngaalaama Amérique euh, euh, euh, les nu mu tudd les patriotes africains du Sénégal yi nekk ci biir Amérique jaajëf France am na ko ne ma sax ñoom ñoo war a jël coupe bi et surtout Paris jaajëf waa Paris manam les patriotes africains du Sénégal yi que Paris ñe que Espagne ñi ngi leen di jaajëfal ñe nek Italie ñoom it nañ yokk dose ña Mali ñe nek Niger mais ñun ci Sénégal ana sunu village ana sunu quartier ana sunu commune ana sunu département ana sunu ville nañu def bu ci masculin ñu def ko mort bu ci féminin ñu def ko morte ville morte commune morte quartier mort village mort jëme 72 heures une semaine Macky Sall dana réglé mu yoré réew mi ci anam ko a respecté loi yi di de tax di doog arrestation arbitraire yi torture yi kidnapping yi bracelet électronique yi contrôle judiciaire mais on en a on en a assez Lola laa wax euh, loolu marle bu ko woyee itam get up stand up for your right don't give up the fight ñun commencé bu ñu dëgg-dëgg fight bi fightoon nañ ko mais dafa am lu kilifa gu wax lu reelu am na ñoo xamee ni ñoom li leen ñoroon lépp xeexaluñu woon Ousmane Sonko lan ngeen waxoon bu dee da ngeen di xeexal Ousmane Sonko ci Kër ma Massar ndigal la ñuy xaar ca Parcelles Assainies le 14 mars mu ni leen audience publique la na ngeen ñëw lu mat téeméeri nit ñëkkuñu woon cité kër góor gi. am na ñoo xamee ni baalukaay rek lañ ko def comme ni ñu songi gàmmu gi màggal gi màggal gi jàll na ñu songaat gàmmu gi lekk yi ana pomme ji ana orange ji ana ganaar yi ana xar yi feesali duus mais nee ma osan yi ñu doon toj am na ñoo xamee ni sàcc rek moo leen ci ñoroon mais du leneen du Ousmane Sonko lañ doon xeexal kon na ngeen ñett sa waa kër si sa góor gi ñoom ñoo war a jëkk ni lii ngeen def sunu barricade sunu quartier bi duñ ko nangu ngeen xeex ak ñoom quartier yi ci def xeex la leen mais quartier yu ko wóor mosuma leen a gis ñu ñaqal ñu ñaqal réew mi te kuy ñaqal réew mi ñu naan bandi la ñoo gi ma xamul tellement nooy booy nelaw ba bu dee vacances newal ba nelaw ba midi naan sa café di xaar sa ceebu ganaar wala sa ceebu wala sa mbaxal wala looy xaar boo noppee taal sa caayin naan maa ngeeg sama carte mais ki ngay wutalu carte diggante buñ ko xenkee ci kaso bi ba la daloon imam ndaw dal ko fa kan ngay sànnil xoboo booba mën nañ ko faa noyyiloo ay mbir yoo xamee ni bu ko noyyee ay organe am yàqu bu fi tegaatee tuuti faat lu muy jari kill them before they grow Patrice Lumumba Thomas Sankara jéem nañ ko ci sëñ mu mu échoué mais def nañ ko ñeneen ñu ñoo xam ne ni la liste est longue waaye réew mi sama bàyyi daf maanaam kenn tabaxagu ko moo tax mënuñu koo bëgg citoyenneté ak affaire patriotisme du du lii Senghor ba mu ne danaa leen def jullit yu nasax quatre-vingt-quinze pour cent yi boo ko taaraaroon mooy nga xool dëgg li ci baax du mat quinze pour cent moo tax si Ahmad Tidiane si Al-Maktoum ni gëmuñu yàlla dañoo nasax kenn mu leen a bàyyiloo seen ataaya bi kenn mënu ne a bàyyiloo seen ceebu jën bi ëpp na ceebu jën dafa tudd benn rek juse yi bum jublu kulli yi la kenn mënu leen a bàyyi mbaxal yi kenn mënu leen a bàyyiloo ceebu ganaar yi kenn mënu leen a bàyyi misu yi ak njaaloo mu bari ak naanum sàngara mu bari léegi nag boo sax dañ naan kii du géré wasalaam. voilà tey fii laa ubbi bala may jàll feneen nag dañuy dem ca États-Unis xool la nga xam ne mooy la fa xew ñu jaajëfal leen nag ñoom ndax nag xeex bi bu mu tàmbaleek léegi ñoom ñoo jël ndam ni nañu déglu waa États-Unis fan lañ toll ñu doog nag dugg nag suñu waxtaanu tey ndax li ñu waxtaane war a waxtaane bari na problème mu Sidi Lamine mi nga xam ne doomam rey na nit Sidi Lamine ne woon gëmm leen dóor dañ ko waxtaane problème waa Wakaam fa ñuy jooyee Sidi Lamine Niass benn chef bu jigéen ki nga xam ne mooy tëdd ca lalu hôpital yi ay doomaraam ngeen mu fayu rey nañ ci nit yooyu yëpp ci réewum inti intimité la eh, eh. xaw ma nuñ koy waxeeti sax man mu français yi laal dama ko tiré rek réewu intimité intimidé ci la xewe intimidé réew moo xam ne ay doomaram lañ ba bu ñu xëyee ñoo gën a bari jàkk gën a bari juma ñeme ay tur maam yoo xam ne gëmuñu la maam yay def dara koo ci gis bu tuddee maam ba nga defe ne tudd na maam niru na ak boo xoolee jëf ja mook maam comme yàlla ak yàlla ay doomaram ngeen rek yéen ngeen ay nit dara léegi nañ dugg États-Unis xool lu fa xew. sëñ Aliou. magi li ko booy def fii nii ñu yor ko kenn ñemewut koo seen am na ci yoo xam ne sax ñoom rek. am na ci vidéo yoo xam ne boyaan cee wax yoo xam ne xanaa xanaa lenn de ah suñ guri waaye loolu moom képp koo xam ne kilifa nga doo ko ñemee sax déglu ko sax xaw a doy waar doy waar woy ko fettal ak saaga yiñ ko saag démb maire maire bi ci boppam maireu dëkk bi ci boppam démb fa doon ñaan gars ñaan booy Sénégal yi pour daal ñu ñu seen xol daal te muñ daal te bàyyi bàyyi bàyyi ministre bi daal doo leen ko ñaan waaye gune yi jiwuñ ko faale sax waaw maire bi ci boppam moo mujj doon ñaan gars yi pour ñu dimbale ko daal bàyyi manifester yi ndax lii daal métti na ba baax ay gooy faarawoon ko ma di lim daj tey fii ma ne ko awa kamaa tuddi nu tuddaanu rek lii lay def nit ñi moom itam def nañ ko ko de gàcce rek la jéggi Seydina Ali de gàcce rek di jéggi dayoo na waaw ndax lii problème bi mooy gàcceeg sekkare moo gën gàcceeg ndëneer te gàcce gi li tax gàcceek gàcceeg ndëneer ñu toll nii réew yi àdduna bi yëpp a ci dajee am na président yoo xam ne ñoom yéemu nañ ci suñu borom maanaam dañ jaaxle li tax ñu jaaxle ba jéggi dayoo mooy ñoom xet ñoom dañ jàpp ne Sénégal West Afrique mooy réew mi nga xamante ni moo gën a nekk démocratie te loolu moo nekk ci kaw moo moo nekkoon li ci kaw li nga xam ne moom la tubaab yi gëmoon moom la africain yi gëmoon ndax xoolal tey réew yu yor Sénégal man nga ne Sénégal kot moo ci def mel ne réew moo xam ne masuñ ko coup d'état ba ci gàmbi ga tuuti jii dende ñun sax coup d'état na ñaata yoon ñaari yoon demal Mauritanie bi doguñ ci coup d'état dëkk yooyu yëpp ba Côte d'Ivoire ngay gis yëpp am na ay xeex yoo xam ne ay coup d'état yi Nigéria nga xam ne tey fi toll nii mooy réew mi jëpp doole ay coup d'état xam na fa nga dem Ghana nga xam ne tey bokk na ci réew yi seen démocratie yi gën a dëgër ay coup d'état yi coup d'état yi coup d'état yi fa am yooyu yëpp nag Sénégal daf ci mucc Obama daf daan jël sample Obama moom daf ko daan wax daf daan jël exemple Sénégal na lu tax lu demee ni ay Congo Brazzaville lu demee ni ay Togo Gabon ah RD. waaw non waxuma. buma ne nee Sidi Lamine Niass dama djum Ahmed Khalifa Niass la wax mom la domam mbeuk domu jambour Ousmane Sonko rayul nek ci kasso bi ay xale Ousmane Sonko ñu nek ci kasso bi domu Ahmed Khalifa Niass rey na nit borom gëm door rey na nit tay nenañ liberté provisoire na ñegal kon ñi bind bu len fàtt ñun yeyewu ñu wax ñu won di wax waye situation mo ñu yobbu ci wax parce que ñi ñu jox suñuy kàddu ñooñu waxalu nek ci seen bop moo tax tey xanté bi bari il faut ngeen di comprendre ki andi lu bari moy joom waye nak jak gatch nga la mayen a nga gaganti machallah ñu yeggali. mais yooyu no rew yi nga xam ay dictateur yu ay équatorial Guinée nga xam ay dictateur yo xam ay fanweeri at ñeen fukki at lañ fa nekk daa woon lu tax manu leena roy ci Sénégal. loolu dafa mënu leen a roy ci président Sall Obama moo daan def daanaka jotaayu africain yi ba xam dafay dend ak Sall yooyu nag su fekkee ñëpp daa xam fuñ la teg moo tax Obama euh, moo tax nga gis mu Macky Sall boo gisee mu woyofoon ci moom te yomb ci moom te jàppandi ci moom pour mu dénoncer Yaya Jammeh génnee ko Gambia affaire yi démocratie bi moo doxal Yaya Jammeh doon ko salfaañe lu yàgg bi mu rëccee nag moom moo tax bi mu wootee yow rek bi mu wootee euh, United Nations ah, pour ñu def emergency meeting rek gars yi dañ ko lim leen wax yëpp pour ñu def ko dañ ci yegg si te biñ ci yegg see waxuñ ko dañ ne ko demal te ñu sa gannaaw di la jàppale nëpp dafa jógee ECOWAS taxaw ci kan gannaawam américain yi ak européens yëpp gëm ko mu bokk ci fukki membres ak juróom-ñaar yi nga xamante ni yooyu réew yu réew yoo xamul démocratie doo ci la bokk dafa am fukki réew juróom-ñaar yoo xam ne dañ naan ñooy conseil administration bu UN bu United Nations Sénégal dafa bokk ci yooyu nga xam ne lépp loo xam ne ay yelleefi doomu aadama la wala mission yi ñoo jël. xalaatam nañ ko see la ndéet lan taxawaayu démocratie su fekkee ne na yow noonu nga mel nga jàllal ba ko rek def yoo xam ne foofu man lii dafa xam na réew yu moo xam waaye réew yu moo xam sax du foofa tey boo demee ci réew mu mer ne euh, Democratic Republic of Congo wala nga dem ci Congo Brazzaville ak yooyu noonu wala nga demoon ci Gabon réew yoo xam ne ñooñu xamuñ sax luy démocratie jéemuñ caa dox xamuñ benn cër ci àdduna bi kenn tegul leen fenn duñ membaru dara maanaam bu nit ñi dajee sax kenn du leen fa jox benn gëdd waaye Sénégal nag dafa am fu ko nit ñi tegoon léegi nga ñëw wàcce ko wàcce ko nekk di toroxal nit ñi di def yëf yoo xam ne dictateur yi duñ ko def léegi gars yi indi ko weer la loolu moo tax gàcce gi ko rey gisoo Guinée Bissau seen délégation bi am na ci doon mu ne mu ne moom su bokkoon ci délégation Sénégal bi gàcce ga toll nii moom bu ko fekk mu yor kon dafa dëgg bee ñibbi amul benn benn manifestant ak xeeti gàcce xeeti toroxal doomu aadama boo xam ne mos nañ koo toroxal président man de fukki ñaar fukki at yi ak naa nangam yi ma fi am nii mosuma ko gis ma benn yoon ci kaw suuf mosuma gis kuñ toroxalee ni Macky Sall dañ ko toroxalee fii nii yor waaw waaye man mii de ñu ko def rek xeeb naa ko wax dëgg luñ ko def rek xeeb naa ko saaga man de du ma saaga wax dëgg yàlla ma fa dem de saaga ji waaye nag lu booy lu ko ñaaw ñaaw rek de xeeb naa ko ndax mu toll mu ngi seetaan nit ñi saaga nit ñi dalay nit ñi mu daree na kon na jooy tey fii moom Amérique la bu ñu saaga président bi sax duñ ko wax dara fii ay affaire article quatre vingt amut lii la wax ay président ak Afrique mooy dal ci koom nañ ko jàpp tëj ko yi amut moom. kay kilo maire bi démb dafa doon ñaan ñu ne mu ne mu ngay ñaan gars yi daal pour ñu bàyyi manifeste bi doy na. moo tax mit waaye ñaan rek lay def booy duñ ko faale sax xam nañ autorisation pour ñetti fan yi ba pare. tey jii la mooy tey mooy gën a garaaw mbooleem la ñu ne mooy gën a garaaw ndax kon gars yi ñi ñëw sax ci revue de presse États-Unis. waaw salaamaaleykum Amady Diallo Wakaam ñu ngi leen toppal ba léegi rek li nga xamante ni moom mooy Macky Sall ak nganam di nekk si euh, fi nga xamante ni moom mooy New York si place euh, Nations Unies xam ngeen ne tey mooy dernière bés bi tey nekk mardi euh, dix-neuf septembre si li nga xamante ni. vingt deux heures wala vingt trois heures moins sept minutes fii si Sénégal euh, kon xam ngeen ne. xam nga nag Sénégal euh, sénégalais ci seen bopp ay doomaraam lañ yoo xam ne kenn mënu leen natt yenn fu bu ñuy natt doomaram ñëwal ba fi doomaram jeexee ñu doog ñu fa teg ñu place boobu foofu la ñu déparé nag wutali foo xam ne doomaraam jeexatul yow Angèle Yen nan lañu mëna a di leen wax lu am solo ci seen réew seen doomu réew ñu di leen ray ñen ñi ñu def leen ay way laago te juddu won ak ay cër yu mat sëkk ñen ñi ñu tej leen kaso tay ñu nekk ci problème bu doy war ngeen tok di lijeenti man mi genn di yor sama ëppukaay bi ngeen di laajte ay jiji xana amoo kilim ëppukaay bi nga yor ñun ñu seen nday ngeen yen am ci ño xamne tremblement de terre rek laa yéene seen ndey ñu kat seen ndey ñoom ñëpp dee parce que am na loo xam ne am xel mu normal du ko xalaat nit day jël taawam bàyyi liggéeyam bàyyi noflaayam yor xaalis mën a dugg fu ne yàlla dimbali ko ñi mu war a nekk ci lu ne dem lijjanti lu ne doomeraam yi mu taxaw ci problème mu réew mi waaye ñenn ñi yëgaluñ ko seen yaram bu ay gor toogee di wax li nga xam ne moom li nga xam ne ñun ñëpp ci lañu waroon a intéressé wu doomeraam yaa ngay lijjanti ah jëjee li nga sol rafet na de jëji yow xanaa yoroo ëpp xanaa yoroo ak amoo kilim ëpp kaay bi nga yor rek ah jëji moom yow moom tey moom man moom noo stress noo nangam nangam parce que dañ leen fekkul fi ngeen toog ñu toj ndey seen ngaam yi dóor ci bali fetal ba ngaam bi xaweeku wala ñu katt ndey seen ndey yi pour ngeen mën a comprendre nit ñi wax lan la man lii lu ma soof la ci yéen lu ma jéppi la ci yéen parce que yéen ngëm yàlla ak nekk nit ci boppam moo nekkul ci seen ay dooma rax gis nga moo tax parfois tiim leen di wax lu leen amal njëriñ sax di dog seen cott ndey yi rek parfois daf may gënal may wax leneen parce que ñenn ñi duñu ay nit barki rasulaay du ngeen ay nit ak temps nu mu chéré moment nu mu mettee dund ni ko ñëpp bëggee waaye nit ki ñëw taal écran jàkkaarloog yéen yu ñàkk fayda ngeen di wax yu ñàkk fayda au ngeen jéem a xool jéem a yëgal seen yaram ci li nga xam ne doomu doomu jàmbur bi nga xam ne dafa génn doon defi dara ñu dóor ko bal tell mu daan au lieu nga jéem a toog ne waa man moo nekkoon fii wala sama yaay nekk fii wala sama doom nekk fii wala sama papa nekk fii lan moo tax yeneen dëkk yi am jàmm te man mënuma am jàmm au lieu ngeen jéem a nekk ay nit mais non non non ça j'ai pitié billah j'ai pitié maa ngi dégg yenn coono yi ci yeneen dëkk yi mais ñooñu mérité wuñ ko parce que ñooñu yor nañ population bu yeewu ñuus nday ak toroxal Sénégal la mérité ak fu Sénégalais ne fu Sénégalais ne rek feebar buy dugg ci dëkk boobu dafa war a topp doomu Sénégalais muy man muy muy yéen parce que ay doomu xaram ngeen ay doomu doomu cumburu mbaam doomu ñuy ñëf seen nday ngeen nit day am xol bu jeex nekk ci li ko naqari ngeen di lijjanti yu ñàkk fayda yu xeebadi yu woyadi ay jiji yow ak sa sikkim bu nangam bi jiji yow sa musóor bi de niñ ko kiiwee nangam jiji yow yow waa jiji yow xanaa amoo ventilo sa ëppukaay bi mais yu ñàkk fayda yooyu essentiel est là ñu ngi rey ay nit ñu ngi toroxal ay nit ji di xool ñu ngi leen di xëcc pour ngeen ñëw concentré wu ci loolu ngeen nekk ci ñàkk fayda même buñ leen fekkee ci lu xeebadi yi ngeen nekk fexe pour jëlee leen fa non yéen da ngeen di xaru rey seen bopp reste ci yu xeebadi non c'est pas possible mais euh, maire New York bi nag gouvernement bi da ko mëyee wax ne ko demal nga séti foule bi nga xamné mo top euh, président Sénégal bi bi fi ñëwé ba légui foule bi ko top topp daal eh, waaw salaamaaleykum Amady Diallo Wakaam ñu leen toppal ba légui rek li nga xamanteni mom moy Macky Sall ak nganam di nekk euh fi nga xamanteni mom moy New York ci place euh, Nations Unies xam ngeen ne tay moy dernière bés bi tey nekk mardi euh, dix neuf euh, septembre si bi nga xamante ni vingt deux heures wala vingt trois heures moins sept minutes fii si Sénégal euh, kon xam ngeen ne maire New York bi nag gouvernement bi da ko mujjee wax ne ko demal nga seeti foule bi nga xam ne moo topp président Sénégal bi bi mu fi ñëwee ba léegi suul bi ko topp daal eh, ak itam xool tawat yiñ koy tawat nga jël si ay ay kii quoi ay not looloo tax maire New York bi si boppam wàcc na sur le terrain ñoo xool si mbooloo mi topp Macky Sall ak la ñuy wax Macky Sall aussi noté ko parce que lii kat dafa mosta am si New York eh, nga nekk président sa ressortissant wu dëkk topp la ba maire maire New York bi wàcc sur le terrain di xool ñooñu nan lañ la toppee parce que dafa yàgg ba ba ñu euh, ba mu ñëwee ba léegi dimanche ba léegi suul baa nga ko topp loolu moo tax gouvernement bu Amérique daal di yebal maire New York mu ñëw xool moom mooy kooku sol lu weex li noonu ban ko xool ci vidéo bi lii kon jéggi na dayo suñ toll nii te

dimanche ba léegi kon li mu def rëy na moo tax maire New York bi wàcc na sur le terrain te gouvernement bu Joe Biden moom moo ko wàccel wàccal ndaxte nag sa ville nañ toppee ak président ni dimanche léegi war nga wàcc xool loolu lan la nga jël si ay notes yu wóor jëbbal ko gouvernement bi kon mu ngi noonu mbir ngi gën a dangereux si Macky Sall lii du jur jàmm si Macky Sall Euh, euh, incha allah di leen jaajëfal baax ñu ngi leen koy toppal fii fajar merci. voilà ñu ñëw nag ci dernier audio bi ñu daal di dugg ci l'essentiel. sëñ am Pathé waa Pastef 2018 nuyu naa leen di leen ziara di la wax ne la penc mi dafa yàqu parce que Aliou Sall waxoon na ko nee na léegi ku xew la ñu tagg la te ñëpp baaxuñu <laughs> waaw ku xew la rek ñu tagg la ku xew la ñu caméra la ku xew la ñu la. ko xewle ñu defar la ba nga rafet ta fekk bi nga xewleegul sa jikko baaxutoon penc mu yàqu moomu nak mo law ba ci lu bari ci senegal da nga gis serigne bo xam limi def dara baaxu ci ñu ne kenn ko parce que ndayam baaxoon na wala bayam na ci fat wala nga yor serigne sëriñ defut lu baax ñu tag benen nga guux say lekh du nonu comme mëno wedd li ñuy wax ci mom da ngay fexé yow sa fas baax comme fasu keneen rek kenn ku ne am nga sa dara waye comme sama fas suru rek bu fi kenn wax mbiri fasu suur lolou du adina boo demee tey fu mel ni Touba sëñ Rafaay moom it ñaan yi ñuy ñaan yaakaar ji ñu yaakaar rek lañu am ci moom dëgg ci la ne guddeeg bëccëg ak ñu baree bari ci xeex ci kër googu nga dem Medina Baye barki démb ci aji saar bëgg dëgg moo tax mbay mbay mbay ñes xaw ma MC génn réew mi gàddaay te mënoon naa ami milliard ci fene aji saar yi gis nga nanu sant yàlla bu baax a baax mag ñi lañ fi defoon wallaay la asim lépp du seey lépp baax nag yombut fenn yontu yàlla noonu ab yonente la woon te amoon na doom ju dëngoon ñun nag suñ problème mooy su ko diw xasee jur daal kenn du ko wax dara loolu moo yàq penc mi loolu moo ñu rey boo doonee doomi sëriñ kenn du la wax dara dem na ba léegi boo doonee doomi président kenn du la wax dara xool leen nga Amadou Sall gis nga ñun dañoo am faiblesse su ndono doomu aadama yàlla dara la ko mayul ci li mu doon doon alal lañ koy def du ay jikko kenn ku ne mën ngaa doon sa alal waaye gis dem leen rek nga mën welo boo mënoon welo bay dawalee welo benn pënu ak loo ci bëri bëri pexe bu sa doom jàngul welo du ko mën kon loolu wax ju leer naa ñi la loo mën a mën a opéré bu sa doom jàngul opéré du ko mën waa léegi lan moo tax ñu jàpp jikkoy nit bëgg ko def comme jaan doomi jaan bu màggee matt rek day yomb de doomi jaan bu màggee matt loolu ci jaan la ko yàlla de def ko ci nit dañ leen segg mbir yi te gis nga àddina bi li ñu gën a sonal mooy doomi ku baax ku bon doomi ku baax ku bon moo ñu gën a sonal xool ministre yi doomi Aly Ngouille Ndiaye ay milliards la yor bitim réew ñu di ko gis ay jabaram xaalis yu dul jeex du xaaj bi muy toog ci jàppee nañ Samuel Sondel Sarr et cetera ñi àndoon ak Ablaye Wade ñoom ñëpp seen i famille ñu ngi xaalis te liggéeyuñ dara waa léegi nag ñu bëgg nag ne nañ ne ceel gis nga jaame yàlla yi kenn moomu leen koo fi jëlul alalam yàqaloo ko dara amul droit wax ci yow kuñ ne capp seen baaraam rek bu ngeen ko seetloo mooy ko jël alal li ñëpp parce que nag doomu aadama kenn ku ne dafa am loo fi moom li nit ñi moom boo ko jëlee foog nit ñi sam la bu ko jëmee dara diwoon suukar toog weñ wu la neex ak bu la neexut ñëppay ñëw sa kaw kon mënoon nañ ci dëkk bi gouvernement bi sàcc alali askan bi jël ay passeport diplomate jox la jox lay huit huit jox lay quatre quatre jox lay nga jaay jox lay milliard nga ne gumb bi nga gund nag parce que yéene la wax ñu kariyeel ko non dañ lay wax ba waxaat loolu lañ la mënal parce que li nga mën nit ñi defal nga leen ko jël nga seen alal toog noos doon nit comme ñëpp di lekk di naan di noos ba pare te liggéeyoo am na foo jëlee xaalis bi am na foo ko jëlee kon nag daañ tagg ñi nga xam ne ci kër yooyu lañ bokk te ñoom yàlla musal na leen ci jikko yooyu kenn du leen yàpp ngir alali àddina ndax àddina ñoru leen ay taalibe yu nga xam ne bokkuñ ci sant wa ña ngi fi mel noonu am na ñu nga xamante dañoo bokk ci sant wa mel noonu am na ñoo xamante sax bokkuñ ci benn këru diina te yor jikko yooyu ay jikko yu rafet ma ngi Sénégal nañ leen tagg borom jikko yu rafet ay ministre yu def lu baax ma ngi fi Thierno Alassane Sall fii la démissionné digg bëccëg bu ko neexoon mel ni lekk kuulu yu ci biir gor gouvernement bi di yàqal Sénégal dafa lànk ni li duma ko sëñe ndax njëriñu Sénégal newu ci nañ leen tagg ñu baax képp ku def lu baax dafa yey dafa jaadu pour ñu wax la ko dafa jaadu pour ñu tagg la ndax ki bëgg a baax def ni moom gis nga ñun suñ télé yii li tax mu bon mooy ku doon doomi xaj da ngay fexe ba ñëw ci télé bi di wax lu la neex nit ñi di la dégg bu ko nee màggee mel ni yow looloo yokk suñ doomi xaj bi doomi xaj nag ci façon bu ne jikko lay doon bu paree jëf ja génn daal di lor nit ñi xam ngeen lu bon mooy ko bon koo xam ne fu mu tolluy def lu bon te nit ñi la koy def te nit ñi la koy def jaan bu amee góom buy màtt boppam yoonu kenn newu ci yàgg-yàgg day dee waaye mbonuk Sénégal du noonu da ngay àgg sax ba ci taxaw ci kanam nit ñi penc mi yenn saa yi sax nga dem bay ba ti baaxoo yenn saa yi nga dem ba foo départ tuurooy parfum fexe ba nit ñi wër la ut ay nit leen jox ñuy lekk ñu naan la sey taalibe leen te jàngaloo leen dara ñu ci bëri si ñoom ñoo la raw def say pexe gudd tànk gudd loxo gudd làmmiñ dugg ci gouvernement bi mën a lijjanti fu ne ngay gugur guguri yenu àddina saytaane dana jay te li ngay def yow ci sabab xam nga ne boo tëddee xam nga nu muy mel day mel lim poon booy ba mu yàgg poon dootu la sam soo doo doo doomi xaraam di yàqal nit ñi di yàqal réew mi di def lu bon da ngay dem ba boo defee lu bon boo tëddee da ngay nelaw boo tëddee da ngay nelaw nit nit la rek da ngay gis soldaar bu nga xam ne bu xëyee di fetal ba ngoon bis bu gisee ku dee ku deewut bu wàccee day naan kafeem tëdd nelaw am koo xam ne xar mu dee rek bu ko romboo daal di suur deret deret la rek niveau yi ñoo wuute lu bon boo ci yàggee noonu lay mel góor gu baax gi waxoon na ko nee na duusi boo fiy doog a dugg day xasaw waaye boo gi dem lu tax mooy da nga mag ñi dañuy wax ne ñaari baay yi loo ko bërile bërile gën ko loo ko loo ko boo ko bërilee ñemee ko muy bor ak bàkkaar ku lépp bor moo la gën a ñeme bor ku lépp bàkkaar moo la gën a ñeme bàkkaar loo wax mu ne ah daal di nekk ci la nekkoon di ko nax naan ko yàlla day baale lépp boo demee yàlla dana la jéggal boo paree nga baalu ko saraxeel fi sàccee fi jàmbur saraxe sàcc nangam ut ay bëri pexe ah doy na waar nañ sant ak gërëm ñi baax ñi nga xam ne dañoo continuer ci lu baax continuer la fi mag ñi nee woon di def lu baax du luñ lor xeet bi waaye di leen jubbanti di leen yar di leen dimbale bu ñu amee lu bon ñu taxaw wax ca ba loola dañ am na koo xam ne ak kàddoo moo ëpp jaasi ci lu ne Macky Sall li nekkee tey ci réew am na ñoo xam ne bu leen neexoon balaa ngoon ñu bakko te dañ ci am preuve bu leer parce que day def lu mu war a def rek kenn jóg ne ko bàyyi mu bàyyi lu tax muy rey nit ñi te kenn waxu ko dara kon ki nay tooñ mën nay def lu bon waaye foo yàlla jamono bu indee iblis it day indi yonent bu ne yonent yi andi iblis ci peggam Macky Sall ku jamono ak moom te doon kilifaam mën koo wax dara muy def luqu njur ànd ak ñim àndal te waxoo ca dara ku la dul baaraam it tooñu la ndax yow yàlla dalaa may lu mayul keneen waxoon naa ko fi képp kuñ fiy woo wallu lim man bu ko sama baay ma noonu kenn du ma dégg damay wooy sama baay mu ñëw def kon nan waxante dëgg nanu waxante dëgg te tàgg ko gërëm ñi nga xam ne ci lu baax lañ nekk ñu encouragé leen yàlla dana leen fay loolu taxu leen a jóg waaye jar na ko ndax ku bëgg baax mel ni ñoom ñun Sénégal dañoo amul fu xale yi jàngee nu ñuy baaxee c'est ça problème télé boo fi jël ku gën a bon ci dëkk bi mooy fay trente minutes ñëw di saaga nit ñi wala muy wax lu bon baa muy tagg boppam mbaa muy wax lu amul njariñ wala sax du fa jaar di def ay xewam événement am réyal ko fuural ko di andi loo xamante ne nii boo xaaree vingt quatre heures mu mujj ci duus bi tiitaru Sénégal yëpp mooy ak lekk ak lekk loo xam ne vingt quatre heures yu la dootoo ko bëgg a gis tiitaru Sénégal yëpp mooy ciment nga xam ne ñiy taxaw di saw liñ ci yor kenn ci yéen yoru ko Sénégal ba mu daj addina bi li fi yàlla may ci nit ci ciment lu ñuy yëm ci bâtiment boo demee Europe wala nga dem Asie mbaa nga dem Amérique danga nga gis koo xam ne bu sawee du siw am morceau lay fompe gannaaw gi bu demee kër ba pare te wallahi moo la ëpp siman gis nga ñun dañoo tardé liñ jël exemple du exemple doomu aadama jikko mooy li am solo ci moom boo gisee coow li bari rek mooy bâtiment yi la ñuy tabax defar ko ba baax ñu peinture ko léeg-léeg sax ñu kara ko te bàyyi jikko yi nit ku judd amul dara lu ñuy def ci yow ngénte rek bàyyi mu jàll boo benn waaye lay jàpp def la jàmm wala mu di la manipuler di leen këppatale yeneen jàmm ñi c'est ça le problème ku ko wax na ñu ne nangam réew mii li fi ne ku ko dindiwut wallahi azim Sénégal jógut sax taxaw dafa tàlli ñarit waxuma la ak di dox ñëpp dem nañ ba mu des ñun ay nit ñoo ne ci biir réew mi di noggatu xeet bi toog ci seen bopp yi ci caaxaan ci loo xam ne moomuñu ko jànguñu jaamuñu benn responsable ay naxaate te naxaate yooyu di dégg nit ñaa ngi yeewu du sotti moo lan la ñuy jël nit ñi gën leen a mëdd ci ñàkk yeewu rek bu jàng ba am diplôme ci nasaraan yi bac plus cinq nga dem taxawaalu ji boo defaree machine buy jëriñ nit ñi kenn du la ko waneel ci télé bi parce que bu set nit ñëw fay un million benn seen télévision ci suuf ñëw toog di saaga nit ñi mooy wax lu amul fulla amul fayda wax ñu ñàkk fayda ba ba trente jeex keneen ñëw borom télé bi dajalee tabax loo ci man noonu la Sénégal di doxee kon ñoo ngi sant ko gërëm wa tudd naa fi léegi ñaar ak ñi ma tuddoon ñett ku ci ne lii sëñ Habib ne ci nga nekk mooy yàlla yonent bi ak dëgg ak lu la ca mën a coûté yal na yàlla leen yal na yàlla jàppale leen yal na yàlla bëril loolu ci Sénégal bëril ko ci mboolem famille Sénégal yi bëril ko ci fi ñu ko gën a yaakaare mag ñi ne dañ daan toog ba naa nawet wàcc ñu jël seen tur dem seeti sëriñ bi ñu yaakaar ne moo leen gën a jub dem jox ko yenn fa ba ngoon fekk ko ci comportement boo xam ne ba ba weer wi dellu si leen mooy yàlla dootu dugg ci seen bopp yi waaye départ rek dof dof lu ba dem ci sëriñ bi nga yaakaar tey wala politicien wala koo mën a doon li nga gën a bañ ci àddina li la gën a tiital moom ngay fekk moom la gën a bëgg ba wajay faju bob bu metti ñew fekk docteur bi joy ndax bob bi da metti yaakaaram yaq mo ne ci senegal tay jongo ba ji toll ni mo la ko mën ta wax nga xamne yow la nga ci mo la déranger mom ngay fekk serigne bi yor diko ko nabb nabbee wala kilifa ga yor ab vite vite yor alal jur jeex malati xaalis xaalis won ko bor bu ne la ko jox mu xeb ko jesneer bi nga don bañ waroon sol maylus bo ñëwee fekk ci lay dugg ñaw ko ba ñaw digg gannaawam gi da ci gumu tok nga yaakaar na ay kéemaan ay meble dara neewul ci mom dara waaw yalla yalla dimbalañu daa wax na ñu ne dañoo contre sëriñ si sëriñ moom ku ne ku mu neex nga doon ko kom am xam-xam la ñuy wax te di ko jëfee nit ñi mën laa xool ba baaxee ci loolu moo tax a dëgg tur woowu la ñu war a seet nan la tudd ñu jéem ko tuddee gaa yi léegi parce que sëriñ léegi dafa bëri ba baatu sëriñ moom mooy loolu jaratu ko sax farat xàmmeetuñ ko yor permis ko mën a dawal yana yàlla defal ñu jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. voilà gars yi kon waxtaan waa ngi nii kon. defena lima don wax legi ci mbokk momu dima ma laaj ndax jiji amo amoo ventilo defe wax ji ñëw na da ngeen yag deglu waxi xaj ba nek ay xaj ba bu ngeen ñewé fu ñuy waxtaan deug dina leen wax nak benn mbir mo xamne ne umpe nañu bari gis nga man man mi ngeen gis parfois bu may ñew di def live ma ci bolé tuuti théâtre di naturel touti di sol yéelu yere yu wayadi yo leen japp ne dafa wayadi wacce sama bop ba tolloo ak yeen parce que dama xam dañ ñu noot ci ay caaxaan té pour ma waxtaan ñu mëna ma dégg il faut que ma dugg si ci caaxaan waaye borom fulla la borom fayda la ta ku xam nan la ci wara a la ku xam ne ay caaxaan yoru kenn waaye dafa fekk né rek il faut ma dugg ci gaal gi ngeen nek parce que ku taq huile kenn munu ko génne ci huile bi te doo takk huile ce kon parti bi ngeen ci xool du loolu moma ci ñor man dafa am parti bu ma indi ci yéen muy folklore gi ma leen fekk folklore googu daf ñu xañ ba mënuñoo dund ci réew mi folklore googu daf ñoo xañ ba ku ci war a famille bu nekk rek da ngay fexe sacrifier kenn mu ñàkk ay baax-baaxam dem pour dundal famille bi moo ñu yóbbu àll ñun ñëpp ku juddu tamit bëgg cee dëkk est-ce que dañ ci war a dëkk est-ce que dëkk yi am amutoon ay nit yu taxaw loolu c'est très important kon bu ngeen ñëwee ñu fekk ñuy waxtaan bu ngeen ñëwee nit taal pour ñu waxtaan na folklore gi neex waaye indi leen luy njëriñ bàyyi di xool yu wayad yi yu ñàkk fayda yi yu damatu yi parce que dafa fekk ne ci loolu la mën a ñëw waaye du loolu moo ko ñor je suis clair voilà ma andi leen li nga xam ne nag tey momata khatal taal muy amet Khalifa nyas mi nga xamne domam rayna ay xalé teud ci kasso bi rey ñu ay xalé teud ci bammel bi rey ñu waaye dañ leen ray ñi fi tok and ak ki nga xamne moy Macky Sall nan ko gëmmal door gëmmal ni gëmmal na ñu deneen wowe ay sëriñ top leen ci seen baaxi baax lañ fekk ñu bon lañ ba tey posé wuñu question est-ce que seeni bàyyi leen jur waxla ñuy jooy loolu deewaguñu joteeguñ pareeguñu fompaguñ suñuy rongoñ police bi nga xamante ni police su dëkk yëpp dañuy aar seeni dëkk ñoom ñu nekk ci réew mi du ñu rey ñun tamit koo ci ne génnal kenn ku ci ne sama yoon newu ci te kenn ku ne sama yoon newu ci bu deegay ñëw ci yow lay njëkki tey ñu nekk wakaam gendarmerie taxaw fa di enquête taxaw laaj nit carte d'identité mu ne leen sama carte nii ak naa ñu ne ko doomu xaraam nga mu fayu ci loolu la jëlee ndeysaan faat nañ ko amet xalifa tey képp ku ñaseen danga leen topp pour ñu aar leen yiir leen àdduna ak alaxira en tout cas ci àdduna bii ñoo leen rey léegi nag alaxira bi laa xamut moo ma jaaxal jaaxal leen yéen ñëpp réeral leen yéen ñëpp ba tey ngeen topp leen tey xañ nañ leen àdduna benn doomam xañ na leen àdduna accident bi fan la xewe fii la xewe Så, toppen. Oh. La fii la reye Ousmane Sonko reyut ma nga ca kaso ba Ousmane Sonko lu mu wax yee askan wi xamal leen ne sàcc nañ seen pétrole sànc seen gaz benn système a fi nekk oligarchie impunité lañuy ñuy doxal te lii ma leen wax woon nii tey bu leen biento ne bientôt c'est l'anniversaire de Batala Diola mu ak sama jouru judd muy le 26 septembre mané won len leen Batala Diola bi muy xew yalla daf ma sutural mu melni ni yegu yaram bes bobu duma ko fàtte mu ma ngi sol sama bi bu yextal yeguma dara sama yaram liggéey bo wacc guddi jot mané tay dal dama damaa dal ñi may fetal ak ñi ma bëggona fetal jox ma cadeau bu andil cadeau sama kurus bi dal la yor tok ci sama kaw sajada, julli julli sentir na sama yaram bi deena ma tok jóg wacc doxi sama soxla sa mënu mako ma tok ci sama siis ba 23 h ndekete ci sama askan lu wara tollu ci ñaari junni nar nañu tay ñak seen bakkan ci ay état ñoom ñëpp ndeysaan dem nañ muy batalo Joola batalo Joola boobu impunité bii tey Ahmed ay Ahmed Khalifa tey def ci doomam ji nga xam ne lu toll ci junni xale ñu ngi ci kaso bi tëdd ma naan junni sax mille waaw junni mille et quelques xale ñu ngi ci kaso bi tëdd rey ñu quatre-vingt-deux xale ñu ngi ci armeel li tëdd rey tay doomu Ahmed Khalifa rayna ñu def impunité batala jola bi ñi waralon problème bi impunité mo ci amat koku dinañ ci taxu kon lolu buñ ko ëndé ba nopi dañuy daal di jëli fami bi parce que ñepp wara xam li xew pour que yomal xiyam buñu yalla laaje bu kenn yeguma won li xew ci rew nañ deglu fi nenañ ma nga xewé fele ci naw de waaw jitu mm-hmm. xam nga dafa am benn cas boo xam ne nii nee ma nga mooy euh, te mu dal euh, ki nga xam ne ni moom war yaay faatu Diagne. Mhm. mooy mi nga xam mooy meeru dëkk ba. nee na ñi doomam dafa doon dawa dafa dafa jëloon otom doon ko dawal. waaw ba mu koy dawal nag far mu accidenté. Mhm. ba mu accidenté am kenn koo xam ne cee ñàkk ba kanam mhm. kooku nga xam ne nii moom moo ci faatu. Euh, magam dafa wax. waaw magam dafa wax. léegi moom la ñuy jokkool su ko defee mu wax ñu situation bi naka la demee jamono ji Lamine Ndiaye lay wuyoo ma nga dëkkee fële ca Kër Massar Lamine ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay seen naamar ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax. Ah, Lamine seen wàccee yéen ñëpp seen wàccu waay. Ah, Lamine yaa ngi en direct ci 99 point 0 euh, yaa ngi ci Walf FM. Euh, yàlla ah. dafa def aussi ngeen di dund euh, actuellement ni ak ndax dafa am kenn koo xam dafa ñàkk ci yéen bakkanam te dafa accidenté. Mhm. yéen a ngi ciy tudd nag doomu ki nga xam moom moo di Yaay faatu Diagne. ndax mhm. mën ñoo xam mbir mi naka la demee. ni demee daal mooy àllarba ci guddi. la benn waay jënd benn bëtës Touba. Mhm. Touba saabam la ko jëndee léegi war ko yóbbu Touba léegi nag sama rakk boobu yàlla dafa def moom safaru tracteur la. Mhm. am na permis maam loolu mooy liggéeyam ci affaire agriculture day yóbbu ay day bay. Mhm. léegi waa fay ko pour mu yóbbul ko tracteur bi Touba. léegi yàlla def mu taal tracteur bi da ko yóbbu bëtës bi sax la doon yóbbu waa bëtës bi la jënd mu war a yóbbu bi Touba. léegi yàlla def mu taal tracteur bi lonk bëtës bi ko yóbbu. Euh, ñun daal liñ ci am mooy def na sok. dee na. def nag soog dee ndax fi mu defee soog fi la dee. Hmm. te ki ko fàdd daal daal daal li fi defee soog fi mu defee soog ñun liñ ci am mooy sappoor moo ko jël yóbbu ko Kaolack. Hmm. Euh, àllarba ci guddi ba sedd alxames mi li ñu am mooy andu ñu fi ñëw ñu denc ko. ah dàmbur nañoo xam mais ñu demee ba ci kanam dañoo foraat ci ay yowu bëy. Hmm. lu day waar mooy ki ko fàdd. doomu yaa faatu jaañ moomu la. baayam moo tudd Ahmed Khalifa Niass. Mhm. gune gi mu ngi tudd Basir Niass. 2003 mhm. la judd. vingt ans la am. Mhm. li ñu ci gën a mekk sax mooy oto bi nga xam ne moom la fàttee suñu rakk ji ba mu dellu xaybu oto boobu noonu. Euh, yaayam moo ko moom. yaayam moo ko moom. moo ko moom li ñu ci gën a soge mooy man li ma xamoon ci ko def soog ba nit wàññi ci wàññeeku ci soog bi mooy ki gaañu. Euh, gaa sàppur moo ko war a yóbbu mais ki fàdd tamit. gendarmerie moo ko war a yóbbu. Mhm. mais euh, xale bi bi mu defee ba mu ngi dawal benn Mercedes bu weex bu rafet bu bees fekk. Mhm. yàlla def ko dafa def ben oto bu gën a rafet boobu moo ñëw récupéré ko yóbbu ko Dakar li ñuy gëm loo mooy nii dañ koy pour def ay analyse tenyu ñun am nañ firnde yu leer na ba léegi xale bi mu ngi kër baayam. Mhm. ñun nag li ñu li ñu jàpp gënut nit gënut nit ñun ñëpp ñoo bokk ci loi bi mu tënk ñu. ku mën def dara ak loo mën doon ak nañ ko teg ci yoon. kon kon bu fekkee yàlla def na ñàkk nañ. kon bu fekkente ne la muy dégg naa wax ji dafa mel ne ko kon gars yi dañu bëgg a étouffer problème bi ko bëgguñ mu jëm kaw. bëgguñ mu jëm kaw. bëgguñ mu jëm kaw. maanaam dañu koo bëgg a moof bëgg koo teg ci suuf te ñun mënuñoo ñàkk xale bi ma xale bi nga xam ne moo def soog. Hmm. li ci gën a doy waar Seydina Omar xale bi mu ngi yor ñeenti bant. amu ci kenn koo xamante ni am na fukki at ak ñaar yaakaar naa taawam bi sa fukki at ak benn laam maanaam ki nga xam ne ni maanaam ki nga xam ni moom la doomu yaay Fatou Diagne bi rey si accident mm-hmm, borom kër la am na bant jabar mm-hmm. am na ñaari jabar bim bim mu takkee ñaaral sax yàggut mm-hmm. gaa ñu na gaa nangu nañ dogal bi yàlla yàlla dogal waaye li ñu mën a comprendre mooy gaa sax daala norma li li yoon wax mooy ki def bu bu soog ba dee am ca ki doon dawal ki nga xamanteni mo doon dawal dala norme yoon da ko wara té psychologiquement xol ba xam ndax conscience am tranquille na ci bit ni ñëm det logique mais lan lañ mëna comprendre nit def sok mhm. manam auto bu gëna rafet auto bi def sok ñëw jël ci ko yobbu ko Dakar ndax lan ñat la sant te ndéssane guni gi nga xamné mo mo mo def sok bi nonu ba wañé ko mhm. amul lum gëna bëgg lurut lurut lurut wa kër bañis lim gëna bëgg ci aduna wa kër bañis la mhm. kon ñun waxu ñu ngir ñat la sant wala dé dañoo bëgg yoon tégg ci yoon nañ ko fi nekkal dëgg moo fi nekk maanaam waru ñoo jël dëgg am fu mu féetee maanaam yow li la metti mooy que ki nga xam ne dafa ak moom moo accident bi dafa dafa jëlee ay gaañu gaañu mu waroon xaar mu waroon a xaar sapeur pompier sapeur pompier daal koy évacuer waaye finalement oto bu rafet moo fa jël daal koy yóbbu xale bi deful dara jotu dara jotu ko moom ah nee dara jotu gis nga ah, nee nañ nee dafa nee nañ dafa blessé de dara jotu xam nga xale bi lan la mbëkkee mhm. moom ci boppam moom moo mbëkk tracteur moo doon daw xël yoo xam te ñun dem nañ ba ca dëkk ba def nañ ay renseignement mhm. ña fa dëkk ne nañ maanaam saa bu ñu xale bi muy ñëw mhm. maanaam ñëpp dañuy daw naturellement noonu lay dawale moom xale bi xale bi noonu lay dawale mhm. te oto bi mu doon dawal du oto boo xamante ni turam moo ci nekk oto yaayam moom la doon dawal bi mu ko mbëkkee ginnaaw la ko mbëkkee yàlla nattu ko tracteur dafa xaw a yéex mu daw mbëkk ko ak doole 4x4 bi mu yoroon dafa am airbag xale bi dara dalu ko 4-4 bi bu la neexoon maanaam soo fa demoon 4-4 bi jëlee nañ ko fa mais soo fa demoon kanam 4-4 bi moo nor. Mhm. mais ndaw waa si boppam waa dara na la ko fi mu nekkoon dara nekk 4-4 bi 4 bu bees la ku xam Mercedes yu bees yu ligg si xam nga ne nit mënu cee nekk mbëkkee ginnaaw ba pare ñu lay jël te waa ji bu feebaroon wala mu gaañu. Mhm. Sappoor moo jël suñu rakk ñun yóbbu ko hôpital lu tax Sappoor du ko yóbbu Kaolack. Mhm. mais Sappoor jëlu ko. benen auto bu ligsi mo joge ko Dakar Dakar la la wax ñew hmm. jël ci ko ko Dakar dañu gëmloo ne ñu dañuy def ay analyse ak dañuy dem xooli ko xool bi nak mu ngi bëgg yag leg wala lolu mo moo xew fele ñuy wax Kaolack di doomu Ahmed Khalifa Niass bokku ci njabotu Baye Niass ñi nga xamne moy mam yi nga xamne ku yew top len ku len tuddu musiba dal tay ño ñoo ñu ngi noonu nag gendarmerie téye nañu ba xaaju guddi trois heures du matin bàyyi ne liberté provisoire foofu ñuy waxee beneen gendarme rey na fële nit ca léegi loolu mooy xibaar yi nga xam ne dama bëgg ñëpp yëg ko keroog yomal am bu kenn ne yëguma woon nag bu kenn ne yëguma woon voilà foofu laa yem nag ku ne daal yëg naa laay bañ revue de presse li ci réew mi politique yoo xamante ni ñoo ngi ci biir léefa yéene kaay ne kii doxal kay te nekk ci biir prison bi moo di Ousmane Sonko mi nga xamante ni doole mu ngi gën di yokku yéene kaay bi ne waxuma la Sénégal sax waaye fukki parti politique yoo xamante ni ñoo ngi ci biir Afrique ñoo ngay soutenir Ousmane Sonko mi ba tëral benn kuréel tuddee ko Pastef Africa jàpp ne Pastef bu dee Sénégal tamit mënta dee ci biir Afrique dafay soog a judd sax nag ci biir Afrique yéene kaay bi ne kuréel gi ni mel nag ay doomi Afrique ñoo nekk ca biir ndax liñ mënta comprendre moo di ñuy liquider Ousmane Sonko mi ci jamonoy élection Pastef Africa nag lii seen yitte mooy fexe ba turu Pastef moom di wéy ci àdduna bi dem nañ sax bay initier ab indicatif téléphonique boo xam ne ci réew yépp turu ba Pastef lay tàmbalee ñoom na ñoo ngi sóobu ci benn campagne boo xam ne seen objectif moo di ñu libérer Ousmane Sonko ca na gën a gaawee joxaat ko ay àqam ak yelleefam ba mu mën a bokk ci élection présidentielle yi di ñëw yéenekaay bi di lim nag réew yi nga xamante ni bokk ci kuréel gi di mel ne parti yoo xamante ni ñoo ngi ci Burkina Faso waa Comores ñoo ngi ca biir Congo ñoo ngi ñu ngi ca biir Mali ñu ca biir ba ci diwanu Niger yéenekaay bi dañu xamal ne fim mu toll nii lenn gis moy xexal Ousmane Sonko ba mu meuna bokku ci election présidentielle yi di ñëw le regard yéenekaay ne guyu Marius Sagna kay mu ngi deggal li ni mel limu gëm ba gëm modi Ousmane Sonko dana bokku ci election présidentielle yi di ñëw amuñu plan A amuñu plan B amuñu plan C ñun plan bi ñu am mu ngi tuddu Ousmane Sonko guyu Marius Sagna di xamna ci biir yéenekaay bi ne ñu imaginer élection présidentielle di am fi ci réew mi te Ousmane Sonko bokku ci ñun wa Pastef mom li nekk suñu bop modi Ousmane Sonko moy président de la République du Sénégal cinquième président la république la wax Ousmane Sonko lay wuyoo fii ci Sénégal bés buñu démé ci élection présidentielle yi midi pile Ousmane Sonko gagné élection yi ci premier tour révélation yéene kaay mu desuwaat ci défanté gi nek ci diggante Yewwi Askan bi ak waa Taxawu Sénégal ne assemblée nationale fim tuni mo yi ngay groupe parlementaire bu Yewwi Askan bi lañu namm moy génné fukki député ak ñent yi nga ci ni taxaw Sénégal amnañ ko ci bi groupe parlementaire bi yéene kaay bi né li day wane né fim toll nii la wax coow li jeexagul day sogo tambali tàmbali ndax député Yewwi Askan bi yi ñogay def ay réunion ci seen groupe parlementaire waaye benn député te bu taxawu Sénégal laa la wax teewu fa waxuma la yëgaluñ leen ko sax waaye fi mu toll la dañ leen a sepp ci groupe parlementaire ba tegee leen na lee voilà loolu mooy revue de presse bi nga xam ne euh, tey maa leen ko indil kon lu waay jàppoon nag gën a la yokk jàpp gi mooy bokk far force léegi nag bu ma jógee foofu damay daal dee dugg nag ci sama burdu bii nga xam ne moom laa fas yéene def burdu parce que nak burdu il faut ma dugg ci xam nga li tax ma wara burdu parce que réew mi caay-caay gi yëpp dafa commencer ci kër serigne ci kër serigne ci caay-caay lu dal senegal rek ñom la ñu tambalé ci bi meli ci mère tiawal ñu ko nan ci ci da nax wa tiawon gep barke borom tuba Jóob ci da nga no nax ndax li nga wane ak li nekk ci yow du benn yow Diop si war ngaa mën a fayeeku séeréer ñetti junni séeréer war nga koo mën a fayeeku ci gàmmu taaw gi ñetti junni jakarta ñaari junni nga ne jakarta bu ci jàpp ñetti junni ngay fay te ko fenn waaw fenn tegoo ko fa yow Diop si barke borom Tuubaa Mbàkke da nga noo nax li nekk sa jëmm ji ak li nu wan du benn na la leer ni nag danaa si Tiwaawan te mboolem lu ma gis si dëkk bi loo xamante ni méngoowut ak dëkk bi danaa la ko wax luma gis ci dëkk bi te nga ak dëkk bi dinaa la ko wax yaa ngi tàmbalee tas marché yi di dagg garab yi ah na la leer ne sa dëkk boobu ñu naan teewal transport bi li koy doxal mooy jakartaay yii borom jakartaay yi ñooy doxal transport bi ndax teewoon gépp léegi fu ay mën a dem ngir bëgg sab dem yomb jakartaay ngay jël ngay jël jakartaay di leen fayeeku di leen bundu xatal ci dëkk bi loolee moo fi dëkk ndaw yi teewoon googu amulub liggéey moo tax ñu dem jël seen jakartaay di ci taaba taaba waaw ndaw yi teewoon amuñu liggéey moo tax ñu dem jël seen i jakarta di ci taaba taaba da nga daan tondi mbaliti kere ba nga toogee ba dégg waaw waaw da yoonal ñu defoon ni da ngay liggéey fekk liggéeyoo sa bopp nga fi nekkal barke borom Tuubaa Mbàkke dinaa gàmmu si Tiwaawan mboolem lu ma gis lu méngoowut ak Tiwaawan danaa la ko wax la la waxoon rek mairie Touba mairie Tiwaawan danaa ci wax gis nga mairie Touba bii moom adduna bépp xam na ni mairie Touba liggéeyul waaw adduna ko ndox manki na ci dëkk bi ñaata forage moo ne ci Touba Mbacke bawul gi benn forage koy doxal dégg naa dama dégg ñu ni Mbacke bawul benn forage koy doxal da musta ta ñàkk ndox Touba fenn amu fi ndox fenn Touba gépp ñàkk na ndox waaw umul amul gi seetar nañ ne oto ndox yi dana ñëw taxaw ba ci forage bi di duy di romb waa amul xuraa te waa amul xuraa amuñu ndox waaw Daaru Minam da amul ndox Baxdaad gi amul ndox ñaata forage ñoo nekk ci Touba dimbali leen waa Touba voilà léegi nak dégg ngeen ko li taxoon ba Touba xewle ma topp Touba Tiwaawoon xewle ma wàcc si Tiwaawoon kawlax dina xewle maa ngi ñëw kawlax en attendant ñoom rey ñoom ci famille bi ñoo mbëkk nit mu dee do xale bu am 20 ans moo mbëkk borom ñeenti bant sulu bu mënagul defar doom moo nëb moo mbëkk moo rey sulu bu defar ay doom ba pare lépp ci ki ngeen war a wuyu ji ca la bokk yàllaay Légui nak Diop Sy dama am ben question buma koy laaj Diop dama am question buma koy laaj Diop safar bi la bëggon nga wax ko waat waawon. safar bi tuddu Mansour Mbaye Mansour Mbeng. Mansour Mbeng. Diop Légui nak yeen deglu kat yi kat yi kat yi Mansour Mbeng turu goor la wala turu jigen. Tuduma ci ben nak. Kuma dulal nak lay bañ dama ne job si safar waxuma jigen waxuma gor safar bi tuddu Mansour Mbeng mba wax nga ko wati waawan comme réew mi ay pa ñoy ay domaram ay pa ñoy yor jëfi domi ñoy def def jëfi domaram job si ma nga lay laaj safar bi tuddu Mansour Mbeng gor lam jigen la nag waa Kaolack lijjanti leen lijeenti len maa ngi ñëw ci yéen pare guma ma su ma paree damay laaj elas Hadj job pendant huit ans neuf ans yaa ngi dëkk Fogny kër gi nekk Alpha mayaro Aziz Ndiaye moo la jëndal oto ak caméra boo xam ne un million cinq cent la ko jënd damay burdu de maak yéen ba keroog bésu burdu bi du woote ngeen du woote ngeen xaaral ma andi woote ba a jàll woote ngi. <coughs> am ngeen paas ak amu leen paas bu seen yoon ku bëgg sa affaire dox gàmmu gàngoog ku bëgg sa yëfu dagan wér gàmmu gàngoog ku bëgg sa aaju faju gàmmu ku bëgg jëkkër gàmmu gàngoog ku bëgg doom gàmmu gàngoog ku bëgg tukki gàmmu gàngoog ku bëgg ñu siñeel la gàmmu gàngoog yéen ngoog xalifa baa ngoog ju ziitum wa ku fiitum wa yu'tikum wa yansurukum nasran nasran nasran dégg ngeen ko kii xaaral xaaral ma def ni du ci sori nag kii kii ñëw na France fii ab famille teral ko yónni seen doom mu yóbbul ko lekk ba mu ñëwee la mu yo la mu njëkk a yóotu ci gone gi mooy ci suween wi kii di wax ni loolu nag du ma ci sori borom dina ko waxal boppam dina ma dégg dina ko waxal boppam doomam doom joojee ba ma ko nee ndaw waa ko ko baay bi mu ne ma yii ba ma ko waxee baay bi musiba la xale bi dafa terrorisé wu kii di wax ni kii kii yëgul ne moom yëgul ne depuis 2011 réew mi ñàkkum jëkkër a fii rey ay jigéen jigen yep jënd nañ ay bant di ko roxu ndax ñak jëkër ki yegul ne bañ fi dalé woté 2011 ba légui ni ñang ngi fi ñak liggéey ki yegul ne saako soble ta lay jar ki yegul ne ci jamono ji ñu toll mbay si Mansour mi khalifa bi ñu ngi koy jagat jagaté ci ay hôpital yi hôpital mënta wër ndax lan feebar gu tiwawon mënta dara mënul dara ki yegul ne ci waawon hôpital ba fa nekk fukki bébé ak juróom-ñaar lakk nañ fa te kenn gisul yàq xam nga ñi boy war trian deug deug deug deug deug ak doomu xarab war ko ci doomu soxna yi trian woyu bandi kacapan gajanger, war ko ci ñi booy ab doomu xaram deug deug deug bo rombee ñi rek ci doomu Sénégal yi ñi ñu wax ne sen sant yi baaxul mëno ko ci japp njëkk la dugg ci kër sëriñ si boo ci jàppul doomu xaram dootoo jàppati doomu xaram ba ilaa yow mi diin kuy doomi raam rek ñii ñoo la gën a doon gaj a geer dégg nga ko de dégg nga li wax nee na fay dóor nii de te li mu wax yëpp fay fen fay duul de lijjanti gee commerce gee metti bëgguñoo liggéey te bëgg nañoo tedd nguuru si seen jaar-jaaru maam léegi nag dañuy jóg nag jéem a jaar ci kaw bopp ñëpp di nax nit ñi duula ko dajale rek fen ku bëgg jëkkër ku bëgg lii xakañ jëkkër kañ jafewut Sénégal yëngal cin rek ku dulluuf si bari na Sénégal lool soxlawul ñu naan la al khairi wala il est marié ou elle est mariée soxlawu ko ndax yéen ku ñëw ci yéen ngeen cappal ko yëngalal ko dëxinam daa wax xaraam yi yéen mam àll yi yéen kuttu mbaasaan yi yéen kuttu bardan yi yéen salopaar yi yéen imbécile dama leen di tudd sa ay su nag ndax dama bëgg a wàccoog yéen alaxira ay doomu xaram defaru am ngeen sañse leen defaru am ngeen amu leen paas bu seen yoon ku bëgg sa affaire dox gàmmu gàngoog ku bëgg sa yëf dagan wér gàmmu gàngoog ku bëgg sa aaju faju gàmmu ku bëgg jëkkër gàmmu gàngoog ku bëgg doom gàmmu gàngoog ku bëgg tukki gàmmu gàngoog ku bëgg ñu siñeel la gàmmu gàngoog yéen ngoog xalifa baa ngoog ju ziitum wa ku fiitum wa yu'tikum wa yansurukum nasran nasran nasran nasran de mën nga nasran ci ay weenu gone de nasran moom mën nga ko ci ay weenu gone ñàkk nga jom xam nga boo toogee ba naan ku bëgg a tukki gàmm gaa ngoog gàmm gi daal mënuta a fexe dëj nit ñi ci biir réew mi ñu dund ci biir réew mi gàmm gi daal tuk tukki rek la mën a defal ni ñi tukki yaa ñàkk jom yaa ñàkk man xaw ma lu tax man doomi soxna yi léegi vingt et unième siècle ñàkk jom giñ ci ñàkk jom te amuñu kersa commerce di melni ay lawbe yen dal yen yen yen yen yen yalla nattu na len nak yalla nattu na len lol <laughs> baxna nañ dem rek da ngeen di jay meuna fen ak ak meuna dor marto sen yi dana dajje ko fal force par a ou par b gàmm gi fala ma sané fi mu ne fala ma sané fala fukki lire ak juroom ñaar deewe ta gàmm gi ko ar gi limay wax bu du deug rek ne len ma du deug ay saaga laa fi bañ ak sisu sen commerce nak sen ñak yee toj motax ko ci gis gemeng gi weng na ba melni mbeustal gamu gi yag na fenne te mbey see nga xaw ma lu ko dal ma nga weng melni bato bu mo raw bato la jola weng na ba ne rëskun hopitalo hopital mo raw umbu fóot fuñ ko yóbbu machine bu mënu ko fóot ñu jagat jagat te yóbbu feneen gi mënu ko fajj ah don ngeen nattu ci rew mi de yen billahi don ngeen nattu nattu ngeen topé ngén ñu mboro sonal ngén ñu yal na len suñu àq dal yal na ngén nguunu ngana fun lu tok diine itali ay filmero fi Cheikh Rafal cheikhal na fi am tan ah, man de kenn do wax way lii am tan tan yi di naw Cheikh Ibra cheikhal nako fi ci Thiès waw circulé nit ñi nañ bayyi seen caaxaan yeeg seen fontu yi nañi magal yalla ta bayyi tiaxan tiaxan baxul Alaaji Maalik keroog bi ndox manqué mu bëgg a jàpp amul ndox dafa ne ana góor gi Amat Mbay Maodo mu ni ko maa ngi nii mun ko jëlal satala gi ñu dox ba ci àll ba ko Amadu xoolal ndax kenn séenuñu nee na xool xool kenn séenu leen Alaaji Maalik wàqi tànkam ci suuf wàqi tànkam ci suuf wàqi tànkam ci suuf këddi ndox génn eh! yaa mën a loolu seen pas la ñoom ñëpp parce que da ngay gis ne ñoom des fois dañuy théâtre 99 doom la am ci àddina dee ba am ci biir bàmmeel am centième doom. Eh! oh Kumba. waaw non da xaar xaar xaar. parce <laughs> que Seydina Mohamed dafa na àddina. moom na Fadal. moom Cheikh na Mouhamed Fadal. fu ngeen toog ci wàllu diina ci Sénégal loolu la ñuy waxtaanee. bi bàyyi diw duggee ca pax ma ba mu génnee bi bàyyi diw naawee ca garab ga ba mu jaaree fi est-ce que bàyyi diw bàyyi diw mooy waaja kenn du bàyyi diw loolu ngay dégg loolu ana lan la lay yokk ci sa diine lan kon war nga yeewu <coughs> yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee màkka di woote fukki atam yi njëkk yépp mbokk yi ci lan la yonent bi nekkoon di jàngale pas-pas tawxiid du dégg ngeen ko du dégg ko ma ma damay burdu doomu xaraam yi ak doomu doomu xaraam yi ñoom ñëpp laay loxati indi teg <coughs> voilà ma ci Aziz Abdou Aziz Mbaye bu TFM Abdaziz Aziz Mbaye bu TFM dama lay laaj parce que ay doomi doomu xaram ñoo fi nek bëgg tok saw ci kaw bop nit ñi Abdou Aziz Mbaye bu TFM dama lay laaj te mu dëkk ci waawon damay burdu de doomu xaram yépp dina leen gënné da ngeen di jaay doomi ramé rek ak bon kan dramé troy dama koy bañ fi damay obligé bloqué troy dama koy bañ Oke. wala beneen doomu xaram bi naan ma téye boo du ma taxaw ci yow Abdou Aziz Mbaye bu TFM sa doom bi juddu 77 sa doom bi juddu 77 te dëkk caat kuli ci doomu lan la danga ko am ci biir sëy wala après sëy na nga ñam takko ana xalé bobu yor nga doomi birin, Ousmane Sonko du sa morom yorul doomi biirel Dengali li ma la wax ci waawoon nga nek de ñi may wax ni nak li tax ma len di tuddu dañu am dara ci ci ci liñ len di wo ni liñ len wax ku fa dem tek, ay doomu xaram rek ko gérer muy appelu Tiwaawan ay doomu xaram rek ño gérer appel appel bu ay doomu xaram gérer nak liggéey leen ak seen xel lu ngeen fu mën a jële Père Ndiawar gay <laughs> Père Ndiawar gay Père Ndiawar gay yow mi katte ca ancien mairie bu Tivaouane mi père njawar gay yow mi capté ci ancien mairie ba père njawar yow tudon na la fi dafa am yu la laaj te ba léegi dégguma la ci xam nga bo amone jom yow ya waron nek khalif fi nga waron fi nga waron fi nga dëkk famille bi nga bok waye ñak jom ak bon ak ñak jang ak wër di katte rek mo la tax fi nga ne damay burdu de ku mer laay bañ ñi ma leen di wax nii ay doomu xaram lañ dañoo topp gor ñi nag Ousmane ku ko laal sa gaña tekki ndeyam wax gaa yi say xuur nu mu mel rose mbaa bleu bu verte ma wax la situation muñ ci yóbbu ku lekk alal ju lewut daañu wax ak yow ku ci bokkul bokkoo ci waaye ñu ngi gàcc ngalaamal samag yi tafsir abdourahma Rahma gay, bu Thiès ak Idrissa gay ñu ngi leen di jaajeufal ndax bo baaxoon ñi tay ñoy ramu sa fami doomi xaram ji kat tek taxawal ak duul ak fenn ko wuruj nga fi ma ngi leen di xaar du yena nara yara gamu gi bala gamu gi dana leen siwal ba ngeen melni tamba ge jeng bu ñu weer ci kirti ndiñ doomu xaram ngeen bayiwul dañu bëgg dund ngeen ne duñ dund ci door marto ngeen di dox akalan duula ko top ci ginnaaw job si na leen wax faram bu tudduma tur nag ku ma duulal nak lay bañ faram bi tuddu mansour mbeng na leen job si wax goor la jigen la falaa yam ubina liñ bi ubina liñ bi ubina liñ bi gorñi wota woote leen ñu bëgg dug ku dug def 2 minutes il est 17h4 17h20 ñu arrêté may na leen 20 minutes ubbil naa leen ligne bi dégg ngeen thèmes yi mu indi yëpp tey acca ñëw leen lii dafa war a siw lii dafa war a siw siiw sa siiw ya fàtte naa leen indil sax ay pambaay laa bëgg indi mu xas seen pambaay laa bëgg indi mu xas seen ndey ubil na len ligne bi duma ci yag nak de xaram bi duur rek fe nak dajale kuuruj calling calling calling calling calling mbokk mi ñu ngi lay jaar salaamaaleykum allo wa alaykum salaam Alin Sidi. ñoo ngi lay ziar. maa ngi si live ya? Wah, yang itu bir, yang itu bir, ngi ci biir Yang itu bir live bi ñoo lagi Gaya, ziar. gars yi ku xamul ndax ci live ngay woote jarum ngay woote waaye da ngay sonal nit ñi rek. calling calling calling. Assalamualaikum mbokk mi ñu ngi iya. lay jaar allo waaleykum salaam. kooka la Jiji. waaw Jiji la de. Jiji naa def. maa ngi sant yàlla ak mu ñàkk a ñaxtu. ji waaw Jiji man Gambien laa Jiji waaye dama la dee topp sa affaire daf ma ne trop. macha allah te maa ngi ooyee États-Unis. dëgg la dëgg la waaye lu ma la mën a wax mooy ne gis nga lu nekk Gambia. Sénégal moo nekk Gambie tamit yi yëpp doomi xaraam yi yëpp nguur yi yëpp ay doome xaraam la because doome xaraam rek a dee toppa doomi xaraam mhm. te ñun tam suñu nguur Gambia di loolu rek a fa nekk gars yi dañ dee ñu ngay tëdd ak jigéen yi rek te mus ñoo daxa kenn seen nguur yi waaye ku bëgg a baax rek ñu ñu bëgg laa si dëkk bi Sénégal moom kay doy na waaru quoi waaye gars yi dama la dee toppa toujours quoi man Gambien la waaye Sénégal daf ma ñor te gis naa daal Ousmane Sonko rek moo mun a faj Afrique yëpp du dina faj eh, Sénégal mu faj Gambie mu faj Afrique yépp mooy solution bi quoi. dëgg la te lu ñu nekk di def Ousmane Sonko di yoon parce que man dama waxoon ne tey su ma nekkoon Sénégal maay premier nit ku ñoo xam ne dañoo dañ koo rey parce que man lii neexul ma dara. waaw waaye waa ma maa ngi laa jaajëf bu baax a baax jiji si sa liggéey bu rafet bi quoi. jaajëf jaajëf mbokk ñu ngi laa ziar yow tamit. waaw nekka nekka si jaama nekka si jaama jërëjëf. jërëjëf. ayca gars ku dugg rek am deux minutes ku dugg mbokk mi ñu ngi Ini jaar ñu ngi delloo ziar di la mhm. ziare nah, eh, bu wér a wér a wér di kontaan ci taxawaay bi di leen encouragé mais di wax rek ne man su doon sax sax nag comme yéen yàlla dafa dafa def instant bi dañoo nekk si moment bu essentiel pour man wu sax parce que def na li ngeen taxaw doon koy xeex ñi ñu di leen saaga yàlla dox nañu doxa dox ba yàlla futti rido bi wan leen sëriñ yi ñu topp ñoom fan lañ jëm loolu moom léegi leer na farankulaayu na mais dañoo nekk ci étape bu sensible bu ñu leen soxla yéen ngeen yokk ñu dimbali ñu ci communication ci gars yi xam ne instant bi taxaw Sonko ñun moo ñu dese mais yeneen xeex yi après ñu mottalee ko neneen mais yéen ñun yéen lañ am bu leen di leen dégg parce que basé tuñu suñu bopp ci journaliste basé tuñu ko ci kenn activiste yi heureusement nag ni ko Akhenaten di waxee Mark Zuckerberg moom yàlla dafa ñëw aaxiru zaman mu feeñal ko ci moom yàlla té yàlla jox ko mu téye ci li li nga xam ne nit ñi ci la ñuy communiquer dëgg waaye ñun nag dañ leen di jaajëfal comme ça su nekk ni ñu koy defee ñu ngi leen di topp di leen déglu di leen ñaanal di leen encourager di wax fi ngeen teg seen tànk foofu kese la mais su nga ñu gënee mën a dimbali ci ñi moom ñu xaar leen ba ñoo kan ñoom Amadou Ba ak ay amoo luñ ñu intérêt ñoo ñoom ñoo xam Macky na tànn ku ko neex mu teg amul mais Sonko da dalay leer ne yéen bu ngeen ñu jàppalantee ñun suñu biir ba ñu fexe ba Sonko taxaw amul ku fi taxaw ci Sénégal te Sonko mënul jël ndam ci suñu kaw ndax ñun moom lañ jox suñu xol ndax moom moo xam fuy metti mu koy bës ñu ngi leen di encouragé di leen ñaanal bañ a yàgg ci ligne ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal bu baax a baax yéen ak ku ngeen mën a nekk jaa ngeen jëf. jaajëf jaajëf jaajëf mbokk mi ñu ngi lay jaajëfal jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf. calling ayca ayca dugg rek nga gàttal. calling ni ko gars ba léegi neex na ma amaguma ci sikk alo Assalamualaikum. Waalaikumsalam salaam ngi lay ziar. Diri ñu ngi lay ngi lay di ziar imam bu baax ma allah ñu koy delloo ñu koy delloo. waaw di bu baax si liggéey bi wax dëgg ma allah macha allah yàlla na leen yàlla taxaw bu baax. yow ya, imam wax dëgg yàlla yéen ya, ngi liggéey liggéey bu rafet. allah waaw te wax dëgg yàlla kontaan nañ ci bi. allah macha allah waaw nga jërë ngeen jëf ñu et ligne jaajëf jaajëf Angèle ba léegi yaa ngi continuer di laajte ventilo xoolal bloqué naa la nag dootoo mana a commenter mais dama lay woon pour nga gis que li ngay dundu ñun dund ñu loolu ba nga naan ventilo 40 euros rek lay Calling. Calling. Calling. day def chauffage day def clim calling bu ma Calling. Calling. calling Calling. Calling. ma Calling. Calling. parce que Calling. Calling. Calling. Calling. Calling. Calling. Calling. Calling. calling calling gis nga ko calling day def sa face calling day def tiim xaaral ma woon la parce que gaaw nga ci du dëgg. calling. calling calling boo ko see fii. calling calling. calling calling calling. nga dimbali ma nag. calling bloqué naa la. calling bu fi ñëwaat lii moo fees dale ci néeg bu ma duggee na la ci booru waañ bi am na fa. boo demee na la ci beneen pièce bële am na fa. calling. kaata ngi ci suuf kaata ngi ci suuf damaa bëgg nga suturaal ma comme loolu dalaa traumatisé moo tax ma woon la mais bloqué naa la pour nga bañ a bind angel ah, yow mi waroon na nekk gel wow koŋ xam ne da nga nar a sama kaw te bala ngaa wow dooma taq sa beeco ni jaay lakkale nga toppe nga ma mbooro kilim kilim ventilo quarante mille lay jar soof ngeen ay doomu xaram ngeen rek mbokk ñu ngi lay jaar waa général bi. ñu ngi lay jaar. maximum de respect ñu ngi lay siyaar ñu ngi siyaar ñi ñi ci ligne bi yëpp. ñu ngi lay delloo siyaar. waa tënk lay doon rek du yàgg ah. ayca ñu ngi lay déglu kooku mooy capitaine. waaw bëggoon rek wax ak gars yi pour que ñu comprendre ne instant ñu ngi si dernier ligne droite bi et puis ñu ngi si dernier réglage bi te ñu xam ne xeex bi ak lu mënti xew. ak lu mënti xew xeex bi dañ koy gagné ci côté yëpp waa ji génn sànq rek wax na lu am solo affaire sëriñ yeeg yooyu noonu instant yi nii daanaka mun nañ ko teg ci suuf parce que les gens ils ont compris que sëriñ si ak Macky Sall dañoo kenn kenn ku nekk dafa jàpp sa morom si poñ mais ñoom ñaar ñëpp ñuy leen ci poñ mooy France mi nga xamante ni ñoom moom la ñuy liggéeyal ak nouvel ordre mondial donc loolu leer na si bopp nit ñi nañ ko lem tegee ko nee ñu xam ne ñun ñu ngi si dernière ligne droite ñu focus si deux mille vingt quatre ndax deux mille vingt quatre ndax deux mille vingt quatre kenn mënuñoo tere am ndam parce que li tax mooy ñaar yi Macky Sall mënta système bi mënta xeex ak activiste yi mënta xeex ak diaspora bi loolu tey leer na ci seen bopp ñoom ñëpp. képp ku nekk Sénégal ngay kilifa diine kilifa cosaan kilifa aada am ndombal tànk ndombal baat wala politicien wala ndombal loxo wala loo mënti am leer na ci sa bopp ne mënoo xeex ak activiste leer na ci sa bopp ne mënoo xeex ak diaspora donc ñun nañu organiser wu jéem a entamé dernier xeex bi nga xamante ne nii ci la ñuy defaree Sénégal ba faw parce que Macky Sall moom leer na ko ne ñun dinañ xeex moom ba mois d' mais buñ demee ba mois d' ñoom ñu ko di insister dinañ xaaj ndeyi dëkk bi ñaar ñun diaspora ak ak activistes yi ak casacé e yi nga xamante ne ne ñoo bëgg a libre ñu taxaw jàmmaarloo ak ñoom xaaj nday réew mi ñaar maanaam ñoom bu ñu yaakaaree ne ñun lii nii nii nii toroxtaange bi ñu suñu bàyyeeg suñu maam yeeg suñu nijaay yi dugal ñun nar nañ cee sóob suñu doom yi non xott nañ seen tuun ak ndey euh, lu ma bëgg a tëjee nag mooy affaire bi xew démb ngor ngor homme de tenue yi dañ fa dem pour revanche parce que toroxal nañ leen fa moo tax ñu dem di fa ay nit comme ay keña mais nag loolu du sens mérite la parce que man ngor foogoon naa ne fan yee passé émeutes yi amoon foogoon naa ne ngor bu dinañ jóg raser gendarmerie Wakaam raser caserne Samba Diéry Diallo raser sax LG yi mbaaw mais émédi xew nii man gisuma j'ai je n'ai même pas senti les lébu ngor waay sentiruma leen ci sax barki dem boo njaay registre aussi rey nañ fa ay nit ci maali foro mais gars yi bu fekkee ne ñoom dañoo décidé dee dee deewu kaña mais lool tamit seen problème la ah. mais leer li wërte wóor mooy combat bii nii allah kulli xaal dañ koy gañe si nii wala ci naa wala ñu gañe ko ci nii ak ci naa wasalaam jaajëf salaamaaleykum mbokk bi ñu ngi lay jaar. salaamaaleykum. ñu ngi salaam. allo. ji ñu ngi lay jaar. ngi lay delloo jaar. ay waay j'espère que yaa si jàmm tey moom damaa kontaan ci live barki yàlla tey moom dugg naa rek ba ba ba jot la nii non sama xol sedd na. di ziar waa Sénégal yëpp ak euh, mbokk diaspora bi ñuy ziar ñëpp. ñu ngi lay jaar. allo. ñu ngi lay jaar ñu ngi lay jaar yow rek déglu. waaw di ziar imaam nag man de jiji dama bokkoon si dof si dof yi laa bokkoon ñi nga xamante ne xamuñu woon daara si àdduna man si dof yooyu laa bokkoon waaye léegi yàlla yàlla def na ma ba leen déglu loolu laa nekk man moom léegi dama nekk nit à cent pour cent man dof laa woon de. macha allah. war na yàlla. di gërëm imam bu baax di xam ni live bu mu mënti def gars yi ñu ngi koy déglu si diaspora bi di gërëm waa Sénégal te ngeen pare te bu baax te xam ni affaire yi moom def ay massification moo fi sës gën a yokk sonkorisation bi mu gën a dal préparé nag Macky Sall moom bu ko neexee lu ko neex mën a def moom xam na ni moom bu paree moo ay njabootam ak ay farba ngobam ñooñu kaso lañ jëm ñooñu moom ñoom bu ñu paree ñoom bu ñu paree si nguur barki Seydina Mohamed comme lu moo laa waxoon boo dofee ba ñàkk nguur gi billaahi kasu ngeen jëm ñoom ñëpp kasu lañ jëm loolu moom na seen xel sedd te na seen xel daal te xeex bi fi jàpp foofu la surtout maa yow nag yow moom amee leen la jukkal vraiment di la jaajëfal bu baax di ziar gaa yëpp di leen wax vraiment kontaan ci yéen bu baax seen liggéey rafet na mention spéciale vraiment yéen ngi def liggéey boo xamante ni yéen leen yàlla jàppale ba salaam. jaajëf ayca ayca ayca dese nañu presque quatre minutes ci li waxoon. tey nak mënuma wàcc loolu parce que mama am assalamu alaykum asalaamaaleykum. Jiji. way ma ngi leen nuy di la ziar di la ñaanal yalla sa guddu fan sa wër ak yalla sam la aar ma sha allah amin amin ma ngi la koy ñaanal yow tamit. diko ñaanal li ngay leral ci dëkk bi bari na. Mhm. damay wax lenn nak ci affaire Diop ci bi ngay wax. Mhm. allo. wa yow rek la ñuy déglu. Ah, Diop si mi ngay wax dafa ñëw fii Amérique. Mhm. Ah, man dañ ma partagé vidéo bi ñu ne waaw Diop Sy dafa ñëw Amérique nee na dafa bëgg képp ku bëgg ku joxe deux cent mille dinañ la daggal terrain trois cent mètres carrés te Tiwaawan mhm. mais ji ji deux cent mille trois deux cent mille ci terrain trois cent mètres carrés fan la am dax délégation ñëw Amérique ñuy wut ñu ñu dóor noonu di duul dof yi nga xam ne gëmuñu dara di adhéré ma ne leen man maa adhéré wul cott ndeyam ndax ñii ñu ñuy defar Sénégal ndax kuy defar Sénégal doo ñëw doomi réew mi di ci Sénégal di liggéey di wut lu ñu am di yónnee Sénégal yéen ngeen ñëw fii di wut ñu ngeen daaneel te gis nga loolu loolu ku ci dugal sa xaalis sànq nga sa bopp vidéo bi nag yónnee naa la ko wasalaam Diop si moo def loolu Diop si moo def lool yónnee naa bi xaaral ma xool xaaral ma bi yónnee naa la ko maa ngi ci kaw chéri Mansour Mansour Gueye ah. chéri Mansour Gueye yónnee yónnee xaaral ma xool ko en tout cas de am na far far bi nag yéenay lijjanti góor la am jigéen la sama yoon newu ci ku ma duulal laay bañ ku ma duulal laay bañ de Mansour Gaye daal laaj leen moom Diop si luñ seq wax nag laay bañ salaamaaleykum. <laughs> salaamaaleykum. waaleykum salaam. salaamaaleykum waaleykum salaam. waaw jàmba jaajëf waay ñu lay jaajëfal di la gërëm di la sant bu baax a baax. ñu ngi lay ziar. xaw ma daan far xaw waaye doomeeraam la karamam googu mel ni muus mu naan diw jii waaw allo waaw lay dégg man daal laa xamal gars yi fu daal maa lay man moom maa lay jaajëfal quoi ndax moom témoignage bëri na li nga yee na macha allah waaye yàlla na jëm kanam quoi may dool di xamal Sénégal yi nag moom moom xaar sax ma njëkkee ci doomeeraam yi nekk ci bopp réew mi ne dee duñu wàcc réew mi bu ma fa jógee nag moom Sonko bu ma fa jógee moom dama leen di teg waaw baleen nag pour le bon ba deux mille ba ba deux mille vingt quatre ñoom ñëpp deux mille vingt quatre ñu ñàpp ndayam féete suuf ou seen sëriñ su do seen sëriñ su doxaan ndayam yeeg doomu xaram ca ca père nawel ak ak ak borom paralysie bu doxaan ndayam boobu mbay seen ak tuxatu ba ca Ndiassane ñaseen ga euh, booy booy ñas ñas xaw ma nu mu tudd ku doxaan ndayam kooku boo xam sol ay verre booy booylu ak mu ka kaw ka suuf ak clandestin ñu dëgg seen nday ñoo nekk noonu ñoom ñoo tëye nday réew mi mais bu ci jógee xool dañuy Macky Sall boobu Sénégal dama leen xamal dara Macky Sall gars yi tëbb nañu ndayam Amérique dañ ko dëbb dëbb dëbb dëbb mu traumatisé leen rek moo des na wàcc Sénégal rek ngeen doggale ndayam li lay wursul dama leen ko ñaan na wàcc rek ngeen doggale ndayam jeex na takk fu mu toll nii waaw ndax jabar jaa ngi ne dof na ndayam di woo kële naan Aminata Tall jaale ko Aïssata Tall Sall ngir yàlla yonent bi Sénégal na dëggu rek wàcc leen Sénégal rek na wàcc Sénégal teg tànkam rek ngeen ngeen ngeen yokku nday traumatisme bi waaw doggale ndayam ba mu mat sëkk Macky Sall il faut ñu téegal ndayam mu aboñ suñu réew mi li lay wut su dama leen ko ñaan sénégalais yi Guédiawaye Pikine yëmbal Kër Massar parcelle unité vingt ba vingt ba vingt ay amitié la ñoom ñu xam nga leen borom dëgg ndeyam ngeen jóg liggéeyal réew mi ay amitié sikaab liberté ngeen liggéeyal day réew mi ay doomaraam ngeen ngeen jël seen loxo rek ak ci kaw ak seen tànk ak seen nëf yi ah góor ñi jël seen seen seen awray takk ndeyam buum rek et ko ci kaw jigéen ñi nag waxi nopp leen ngeen nday xeexal seen réew seen réew dafa nekk ci paralysme bu métti waaw suñ fi jóge dugg ci région yooyu ñu Mbuur Thiès ci seen temps ablaye abdou diouf yéen ay xeex kan woon ngeen woon mais léegi yéen a gën a dëgg ndayam paralysé fii il faut ngeen jug ñu jël suñu réew téye ko suñu loxo su ngeen demee ba pastef ñuy ñuy créé pastef africa yéen ñu ne doomu réew ngeen war a jug sinon billahi wallahi da ngeen di jug rek retraité daanaka sax def ngeen ko junni ngeen retraité mais nag moom ngir yàlla yont dañoo bëgg loolu mu jeex jóg mu mu mu jeex jaajëf jaajëf kon nag na ñëpp fagaru ñu jóg dog gale nday Macky Sall ko ci bopp réew mi fu mu dafa dof jaajëfal Amérique di jaajëfal France jaajëfal itali jaajëf jaajëf jaajëf waay. aca dernier auditeur bi laay jël nag dernier auditeur dernier auditeur kii nee na xaar mbay sama yoon nekku bul ma dugal nag damay liir xaar mbay ko bind ku ma duulal nag laay bañ xaar nee na mais j'adore Tivaouane en pleine Gamou y a des soirées privées njaago e tous les musulmans comme moi paas comment passe le gamou là-bas chez Ndiago c'était drôle xaaral ko wax nag dama liir rek xaaral de ku ma duulal nag laay bañ la ñu jukki woon nee naa leen Touba Tiwaawoon Kaolack Ndiassane si ak neuf la Sambay bàcc ñoo yem de li xew fii rek moo xew fële. calling calling suñu toroxtaange rek ci la ñuy dox. calling ku ma yóbbu nag laay bañ xaaral Haro! Calling. Mbay ma jaaga kaay. Calling. Calling. Haar kaay. Calling. Yawade. Dugal. Calling. Wala ñu may dugal. Dul rek lañu Calling. Halo, Salaamaaleykum. Halo. Wow, Mbokk ñu ngi lay jël. Jiji. Wow. Allo Jiji nak mu nak journée bi. Metti rek ak ñaxtu. Xol bu bon. wa ñu ngi lay sant si ci burdu bi guddi bi neex na trop. vraiment. damay maa lay ñaanal di ñaanal Akhenaton. damay échauffé wu yàlla defal jàmm sàmm leen sàmm mboolem julit. damay échauffé wu burdu bi moom ku ma topp toppoo kenn xam li ma Budi nar a ci burdu bii. ci bunt bi laa taxaw nii rek. non burdu bi kay allah. xaw rek def rek ci rek allo. si mais xam waaw mais mais mais ni nga trop vraiment baax na. xaar rek ba ma gis nga Tivaouane loo wax rek man Dakar Dakar laa dëkk suñu koñ maire yu fa nekk yi ñoo dàqoon organiser ay daayira ay gàmmu gis nga xaalis bu ñuy dajale bi yëpp Moustapha Sy Jamil pa bu kattan ndeyam boobu noonu moo koy récupérer te xam te xam ne si kër kër kii baale mi ngi nekkee wetu kii wetu Gueule Tapée en face euh, euh, hôpital Abass Ndao mhm. daayira Dakar sëñ Babacar yëpp moom moo koy moo moo koy récupérer moo gën a toj tottu ndeem alalam yëpp foofu la ko foofu la ko jëlee gis nga seen xalit bi xaw ma sëñ Mansour euh, nu mu tuddee seen seen waa ji rek seen xalit bu feebar bi rek dafa amoon sama benn nijaay sama nijaay boobu noonu moom taawu Mamadou Dia militant Mamadou Dia la woon bu ñu man bu may nekk Sénégal daf ñu doon expliquer su nga lu ñu doon expliquer noonu man si année 2020 mille vingt laa xam ne dëgg la te bu ma mos a ne euh, Jean Collin bu muy nekk Sénégal premier premier ministre mënul woon. Euh, mënu woon fexe ba jàpp sëriñ mais comme que ñoom affaire de franc-maçon la ñoom ils prennent le temps affaire même buy duré vingt ans quarante ans dana am résultat nee na ma paay di leen doon convoqué temps yooyu noonu am na benn benn hôtel bu nekkoon wetu Ngor bu ñu doon wooyee Ngor Jaaram te yooyu doon wàcc en face Ngor nee na paa bi foofu nu ko mos a mu dem fa ñu ne ko am na sa benn taalibe soxla bu am xaalis bu jóge xamu fan ñu yóbbu ko si benn néeg monté fa benn caméra gis nga nee na ñoom ak moom ay moro moromam ñu bëri loolu lañ ngay doon de par di leen fi filmer dugal ko beneen bu rafet bu duggee di leen kii di leen laal di leen kii ñuy daw daw daw ba sàgg bu ñu génnee gars yi wan leen photo yi bàyyi leen gis nga nee na yooyu noonu moom la gars yi di téye téye téye téye ba deux mille vingt ay deux mille dix neuf mm-hmm. moo tax keroog Akhenaton wax benn wax bu garaaw mu ni paa bi la woon bu njëkk mais dafa falu rek changé photo yooyu ak vidéo yi le lañ gars yi di won moom la lañ gars yi di chantage teewoon teewoon teewoon teewoon moom yàlla baax na sax ba sunu maam yi ñu ngi dee par benn ñu ngi par benn benn ndax paa yeeg maire rek ñoo leen ñoo leen ñoo leen ay mbay maa fi gën ak mbay jàppandu si mbay ak cottu ndeyu mbay ñoom ñëpp a yem seen saram ndey bi nag moom fu nga jàpp foofu la ay job si ancien transporteur jékki-jékki naan milliardaire nga jël suñu ceeb covid bi lekk ndeem pare naan kenn xam fu xam nga ñoom ñëpp a yem instant yi moom xoolal

kër yooyu rek ñoo a rafet mais yooyu yëpp ay këru baraak la amul woon dara dara dara dara mooy dëkk boo xam ni taalibe yi dañuy gën a torox ñoom doomu sëriñ yi di gën a am. ah am na nag ñu fa baax mooy comme sëñ Habib si moom baax na mais pas bi nga wane sànq noonu xaw ma doomu kooku doomu sëñ Mansour la ñëwoon na fii dëkk bu mu nekk fii Europe fii ñëwoon na fi naan day joxe ay ñaan 200 euros ay ku ku si jënd am këyit mais boo ko jënd yëpp répartir nañ seen ndey bu yàgg amuñ tous bu ñu génnee jaay gaay jàppaleen ñoom yëpp gaay jàppaleen tout le dañuy duul amuñu xam-xam amuñu jottu ndeem dañuy fen paa boobu noonu boo xoolee kanam bi sax xam ni markatu ndeyu lëf la kanam bu kattan ndeem xóot boobu noonu fii la bàyyam nekkoon fii doon naan ay at ju branché naa a Ablaye Wade ñëw gañe mu naan non damaa xaw ma lal damaa waxoon euh, ab ñëpp a yem ay imbécile nunu voilà loolu la waa ji wax sànq mi moo moo si nekk yow insitel del del kii budd ñun ñu ngi lay seetaan ñun bu ñu amee benn affaire bu ndaw ñu ñu dugal voilà jaajëf waay sooy jërëjëf merci beaucoup. jaajëf. gaa yi gaa yi damay jëli war sa genn nag ñu tëj war sa genn laay tëjee wal sa genn war sa genn laay tëjee Amérique la nekk mu indil la fa xew sa genn gis naa la ci géew bi xaaral ma dugal te mu indil ma problème li ma waxee moo bi baaxul on sa genn jaar nañ la. waaw waaw waaw salaamaaleykum on sa genn noon laa ah? waaw moom la de once again yaa ngi mokkal affaire bi de. once again damay jàng damay appliqué. njàngu métti la ñu wàcc fële wal geenu ñu wàcc fële wal geenu Macky Sall bu baax a baax a baax. njàng mu métti laa ne ci mu métti laa ne problème ah. mu métti laa ne. waaw <laughs> yee affaire yi daal saway mbir mi lii la quoi parce que tey bu fekkoon ne da ngaa teg euh, Mouhamadou Rafahi Mbacke ay xutbaam. Euh, ndax lu tax nga koy teg mooy da joxe exemple li nga gis ci lu baax moom ngay wax boo tegoon xutbaam gars yi ñu tugg fii naan nañu bàyyi nañu bàyyi xutba yi ñuy teg nañ bàyyi moo xam ma Ahmadou Rafahi Mbacké mi ñuy wax ak di wax ci moom te parce que dafa def lu baax léegi man damaa mënul comprendre sénégalais yi quoi parce que ku ci nekk boo duggee mën nga wax li nga xamante ni moo moo la métti ci réew mi wala yooyu waaye nit ay kilifa lañu fii ñu fi nekk ay kilifa lañu ku bëgg a digal da ngay digal sa doom man nag li ma naqari rek laay wax da ngay digal sa doom quoi parce que bu fekkoon ne da fi tegoon keneen ku baax kenn du fi dugg naan nañ ko bàyyi dégg nga mbir mi nañu dëgg fii ku deful kenn du la wax nañu dëgg gis nga tey Macky Sall mii li tax muy teg lii Sénégalais yi à cause de sëriñ si tey bu ñu amoon nu ñu taxawee du ñu yegg fii ak Macky Sall sëriñ si bu ñu amoon nu ñu taxawee Macky Sall li mu rey ci sénégalais du ko rey ay criminel lañu ngeen bëgg a toog fii di protéger ay criminel yéen dëgguwu leen seen bopp. moo tax xeex bi metti ci ñun. yow na sa xol sedd man leen seen bopp. xool sa geen na sa xol sedd man saay bu ma génnee. danaa ñef seen ndey wala ma boole leen a ñu ñef seen ndey. un deux parce que lu ñu naqar rek ñoom nañu waxante dëgg. lu ñu naqar préparé leen dëkk yi nga xamante ni yéen yéen a nga fa ngeen préparé génn bu ko defee cooki fee ba Sénégal gars yi dañ doon wax yéen ñu nekk bitim réew xeex leen xeex nañu ñun bi xeex jotee xeex nañu bi ñu jotee ci Macky Sall tax nañu mu dugg ca duus ba waxuma la ci nekk waaye ca duus ba la dugg man maa la ko wax Macky Sall dégg nga fexe fexe ba gars yi kii euh, maanaam Macky Sall ñu teree ko nelaw Macky Sall ñu rusloo ko gàcceel ko maanaam yéen ñi nga xamante ni teewu leen woon foofu da ngeen waroon xool background bi ñëpp oto yi lañ doon xool mais xoolal borom kër yi génnoon génn seen kër yi dégg nga maire yeeg màggat yi di photo ah gis naa ñoo xam ne seen kanam yi tubaab dañu yorul xool bu baax seen kanam yi triste background bi la ñu waroon xool fii liggéey bu am solo la fi gars yi def. macha allah xaw ma lu fi gars yi daawul daawul woon def mais liggéey bu am solo lañ fi def waaw. loolu la quoi le combat ku bëgg a digle diglal digalal sa doom nit ki am na droit boo gisee ay criminel ci dëkk bi nga wax ko naan ay bàyyi leen suñu sëriñ ay criminel ay reykatu bébé ah ay komplokat sàcckatu alalu réew mi ah. takkkatu yaayu première dame yi ngeen nekk fii di fonto nit ñi naan ay nañu wax ci lii nañu wax ci laa ah dem leen ngeen juri doom man man sama village Gànjool la dafa bëri ay golo dégg nga ku ci bëgg mën naa la cee wutal golo bu jigéen nga teg ko sa wet naan ko defal lii ak waxal lii bàyyi leen font yi tey wax dëgg yàlla dëgg la bëgg boo bëggee xeex te doo ci boole dëgg doo doo dem fenn doo dem fenn kilifa yi ay yàlla la ah da ngeen dégg fii bi ñuy saa ñiy saaga yàlla ci réew mi dem ngeen ne leen bàyyi leen saaga ah ah nañu waxante dëgg mais xam nga lii dafa ëpp quoi dem leen da ngeen bëgg a digalaate bëgg a digalaate bëgg a digalaate dem leen ngeen digali seen doom dégg dafa am lu ñuy xeex li ñuy xeex mooy réew mi jaar yoon Sénégal boo xam ni dañuy rey seeni doom c'est parce que dañoo génn rek ñaxtu ñaxtu dong la def ah ñaxtu kese lañu def dégg ñu rey leen ngeen naan ay naan kilifa yi dugg na fii te ñoom ñoo ñu waroon jàppale benn kàddu lañ doon wax Macky Sall rey bi du yegg fii benn kàddu 2021 la rew yi doon jeex ngeen ñi fonto niñ salaamaaleykum wa rahmatulah jaa ngeen jëf sama jaa jëf gars yi tëj naa du ma mën a jëlaat kenn ngeen baal ma rek dama leen ko ñaan ngeen baalal ma ko rek ngeen baalal ma ko rek tëj naa tëj naa tëj naa damay andi jóob si ñu xool lu mu defi ci états-unis xam nga ñoom ay tekkatu dil lañ ci dil lañ dëkk gars yi tëj naa tëj naa tëj naa ngeen baalal ma ko rek ngeen baalal ma ko ma andi leen Diop si mii ak lu muy tek assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki juridi mbokki talibi rawati na mbokki xadara sidi haji malik ci mandi len Diop si ñu dal di tëj nag calling tëj naa calling tetna, jarul la laajte koy koy koy ak sul laajte ma ne tëj mandi len Diop si Diop si ay dealer lañ ñii ñëpp ay doome xaram lañ doome xaram yi ci réew mi ñu déglu. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki jurit yi mbokki taalibe yi rawatina mbokki xadara Seydi Hadji Malick ci États-Unis fii ci New York zawiya Seydi Hadji Malick si seen yéene ak seen bëgg-bëgg nee naa la lépp lu waay di bëgg nanga bokk ak nit ki bëgg-bëgg moo ci dàq moo tax monsieur le maire Tivaouane di honorable Demba Diop si

ngeen xool nu ngeen ko programmer voilà Diop si la def Europe nee nañ bàyyi nañ doomi Tiwaawoon yi amuñu kër ñi fa am kër ñu ngi toj seen kër yi léegi biir kër yi amatul sécurité jóge na ba biir Sénégal amuñu dara seen dara matul ñi wër xaalis lañuy wër ñu mel ni xar mu rëcc ci kër di wëri lu mu lekk dugg nañ ci dugg nañ nag États-Unis ñu koy jéem a triande Diop si nii far bu góor la yor far bu góor Mansour Mbengue laaj leen ko xam nga yéen xàmmeewu leen jinne waaye bu ngeen xoolee kanamu Diop sa gii mel ni yéet bu feebar yéet yéet bu feebar nu muy mel gis ngeen tuñam yi ne yàpp yàpp baaral mel ni nag buusin ba pare mu nga ne yëpp na na xam nga bu ngeen ko gisee ngeen war a xam ne kii du nit jinne la Diop si mii jox leen ko seen xaalis maa ngi leen seen jooy yeeg may xaar fii maa ngi xaar seen jooy yi fi tiriyaa la wayu la gajangeer la bandi la ma tëj ak yéen nag bii dem sama yoon du ma ci du ma ko sax fekke bii dama leen koy tegal rek dem sama yoon parce que du ngeen ay nit du ngeen ay nit laa la wax yéen barki rasulaay du ngeen ay nit kii laa leen di tegal rek dem sama yoon wax nag laa ciy bañ ku ma fi jéem a ruube naan ma way waroo koo teg waroo koo def nii defel nii sëriñ defel ne wax laay bañ de attention wax laay bañ nag voilà xaar ma wër ko sawa moom anamu sax man dama ko gisul sax sama waa ji yàq na sénégalais yi lu mel ni xeme yàq na leen lu mel ni xeme man moom du ma ci wax du ma wax dama koy teg dem sama yoon dama koy teg jóge fii yëpp waay waay waay waaye waay waay ana banjo bi banjo bi ana nga banjo bi ana nga waay waay waay waay ana bi waa ah mi ngi nii damay dem nag tëj naa. waaw ne jërëjëfe da nga ne barke Abdoulaye wala barke Andoura fàtte nga yàlla teggi nga yàlla won nga ko ne lii ma lekk moyoo ma ko sa barke nekku ci diwa ma ko barke la nga lekk ba pare. te sa moroom yu bari lekkuñu nga lekk ba giix naan so ndox tëdd raay sa biir ne war a wax alhamdulilahi rabbil alamin yàlla yow dong yaa yeyoo sant nga ne ko yow yàlla kenn du la sant koy sant nga ne ko maa ngi sant Mamadou Diop parce que ceeb bii ma am lekk gii ma am moo ma ko jox loolu moo am Sénégal mooy bokkaale yàlla te loolu la yàlla gën a bañ looloo tax yàlla yàlla yàlla yàlla nësaxal seen dund gii ngeen di dund yéen sénégalais yi bokkaale bi ngeen di bokkaale moo tax tey àddina bi li muy neex neex neex Sénégal naqari doo toog mukk jégg Gàmbi yey naan Gàmbi ni mu naxaree Gàmbi du dëkk doo toog Mali yey naan Mali ni mu naqaree Mali du dëkk doo toog Nigéria yi naan Nigéria ni mu naqaree Nigéria du dëkk Sénégal rek ngay dégg ñu naan dafa naqari dëkk du dëkk te pourtant Sénégal am na lu ne mais nit ñi ñoo seppi yàlla tege ko côté jël ay nit ñi ñoom teg leen palaasu yàlla suñu tuddee yàlla ak yonent bi seen yoon newu ci duñ sax yëngu. suñu tuddee yàlla ak yonent bi da ngay gis sa ne réaction da ngay jàkkaarloo ne sax nga ne ko na def mu ne la maa ngi sant ma Modou Ndiaye wala maa ngi sant Samba Diop te pourtant da nga war a wax ne maa ngi sant yàlla doomu aadama buñ la nee na nga def da nga naan maa ngi sant suñu borom alhamdulilah su ko defee yàlla di la dolli parce que yàlla dafa ne sant leen ma ma dolli leen mais yéen santu leen yàlla gëmu leen yàlla sax ba di ko sant nit ki bala ngay gëm dara danga koy xam bala ngay sant dara da nga koy gëm mais yéen gëmu leen yàlla neexut a dégg ku ko wax ngeen mer mais gëmu leen yàlla te loolu moo gën a bon góor jigéen gi nga senegal gi bu ñu àndoo nekk ay góor jigéen moo gën benn bokkaale yàlla bokkaalekatu yàlla am ci dëkk bokkaale yàlla day day gental dëkk a ngi nii amerig gi ak dëkku tubaab yi góor ak góor dañuy sëy di tëddante. the name of God su paree danaan thank you God. kuy goot yàlla bu dee français ñu ne au non de Dieu suñu paree ne merci moo Dieu Dieu mooy yàlla américains yi seen xaalis lu ñu ciy bind in God wi trust yàlla la ñu gëm mais yéen Sénégal da ngeen di taxaw jàkkaarloog doomu aadama ni yéen su doon kuy dund sax nga ne kii mënal na la dara waaye nga fekk ko dee koo xam ne fekkee woo jamonoom bi muy ñëw ci àddina yàlla di ko indi yow juddu bi muy dee fekku la fi ëllëg yombal xiyaam boo dajeeg moom bu mu ñëwoon ci mbedd mi romb la sax buñ la nee kii moom la nga du moom ëllëg yombal xiyaam bu la yàlla bàyyee ne la demal nga wëri ko boo jàkkaarloog moom doo xam nga taxaw ne ko jox naa la sama àddina jox naa la sama àllaaxira yow laa yaakaar àddina yow laa yaakaar àllaaxira bàyyi fi nag ki nga xam ne mooy dund te du dee muy kun fayakun jalla jalaaluhu wa zal kamaaluhu rabbi samaawaati wa maa fil ard mooy al awal ki njëkk al aaxir mooy ki mujj alxayu mooy kii dund alxayu mooy kii ki ki dul dee. déglu ma ma ñëw àll. ki la sa àdduna jagalu ko. déglu ma déglu ma soo ma dogee dama lay wàcce nga yéegaat déglul yaa ngi may dégg damay wax ak sénégalais yi lii ma leen di wax kenn du leen ko wax ci seen gàmmu yi kenn du leen ko wax ci seen màggal yi kenn du leen ko wax ci diini ji. non damay déggal sax li ngay wax Pambaay. ci bu naree nekk bu baxee xeeñ. déedéet soxlawu ma ku ma dëggal parce que xam naa ni li may wax dëgg la te ñoom ñi koy seetaan xam naa ni dëgg la même buñ ko bañee sax xam nañ ne dëgg laa leen di wax ñoom ñi koy xam nañ ne lii may wax dëgg la même buñ ko bañee xam nañ ne kii li muy wax dëgg la xëy na kay ki koy wax la ñu jàppee benn doomi xaraam buy wax wala benn góor jigéen buy wax mais bu leen xool ni góor jigéen ay wax ak yéen wala doome xaraam ay wax ak yéen xool leen ni ki leen di wax li mu leen di wax dëgg la li leen delloo ginnaaw du politicien senegal li leen tardeel sonal leen du gouvernement Sénégal li leen tardeel sonal leen du du dëkk bu ñàkk liggéey Sénégal li leen tardeel sonal leen du dara xam nga lu leen taal de sonal leen da ngeen jël ki nga xam ne moo leen bind muy jalla jalaaluhu wa azal kamaaluhu ki nga xam ne bu ngeen dundee moom la su ngeen lekkee moom la su ngeen naanee moom la su ngeen wiree moom la lu ngeen am moom la su ngeen amee liggéey moom la su ngeen amee xaalis moom la su ngeen tëddee moom la su ngeen yeewoo moom la su ngeen amee jàmm ba mën di tukki di am teraanga fu ngeen mënti ne ci àddina moom la ngeen bàyyi ko ne ko yow defaloo ñu dara fekk ñoo xam ne xamoo leen ci aadama xamoo leen ci awa da ngeen judd rek fekk leen ñuy tudd seeni tur naan def nañu nangam def nañu nangam te lolu ñu naan leen def nañ ko musu leen dox bañu won leen preuve ni mi ngi ni musu leen dox bañ leen ni li lañu def musu leen dox bañu ne leen kay leen ñoo leen defal lii puso sax bayyi wuñ ko fi ne ñom ñoko fi defar ngeen jël leen tek leen ci palaasu yalla bu yalla ne def leen ngeen bañ bu ñu ne def leen ngeen bañ nit ki nanguwul jaamu yalla jaamu sa morom te ku jaamu sa morom mu def lo xamne dina la lor adina lor la alakhirah ku toppul ku dul yàlla keneen koo topp yaa koy jëriñ waaye du la jëriñ waxoon naa leen ko képp koo topp te du yàlla suñu borom tabaraka wa taala rabbi samawaati wa ma fil arde yàlla rek ngay topp mu di la jëriñ yàlla rek ngay topp mu di la dimbali yàlla rek ngay topp mu di la taxawu yàlla rek ngay topp mu di la jàppale yàlla ngay topp mu di la defal lépp loo bëgg te doo ci fay dërëm mais képp koo topp ku dul yàlla du la jëriñ te yow yaa koy jëriñ ku ko weddi xool sëriñ boo gis doomu adama topp ko ne ko yow laa gëm àddina ak àllaaxira yow laa yaakaar soo liggéeyul may ko moom mu dund moom du liggéey di la jox soo ko jëriñul joxoo ko àddiya bu mu lekk wala sarax bu mu lekk moom du la jox yow yaa koy jëriñ mais moom jëriñu la soo feebaree yëgul soo deewee yëgul suñ la tëjee kaso sax mënu la faa génne te pourtant dëgg boobu lañ war a xamal nit ñi ñu xam ko nekk ay nit Muna yew mais tank yew yeewuwu leen ci côté bobu du ngeen mës avancer avancé mo moo leen te bés bu ngeen di yew nak day fekk mu wess moy xulo bobu ñu ne ëlëk yomal xiyam ñi ñi top ak ñi ñi topaté dañuy dem bu buntu safara di xulo nan yow ndakate top gi malay suko defé kañuy top, taxaw ne la man neewuma la won nga top ma parce que xaw la woon sama jamono bi ma yàlla indi fekku la fi man la ma doon def yàlla sama bopp laa ko defal tey jii taluma fi ndey taluma fi bàyyi parce que xadis la yàlla moo ko ëllëg yombal xiyaam kenn du tal kenn yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne mooy gën gi mindeef bi yàlla di tànn xool na ñëpp kenn doyu ko moom la tànn mu ne ko kaay yow laay bind yaay gën gi mindeef yow laay yónni yaa ngi dégg yow laay yónni yonent bi sallallahu alayhi wa salaam Fatima la bëggoon ci xolam. lu mu am Fatima ko ko gënal dafa toog jàkkaarloog Fatima ne ko Fatima mu ne ko ah mu ne lépp loo ma laaj ci sama alal ci kaw suuf mën naa la ko jox mais ëllëg yombal xiyaam man mii sa baay mënalu ma la dara ci kanamu suñu borom. laak nag yow mi nga xam ne yaa ngi nekk nit yor sa xel yor sax xalaat fekk doomu aadama boo xam ne nii xamoo ko ci ndey xamoo ko ci baay da nga judd rek ñu wax la ay wax xam nga ni moom nga yaakaar àddina ak àllaaxira jamono bii ñu nekk rek ki nga xam ne moom nga yaakaar ngeen di dundandoo yéen. ngeen nekk di dund ki nga xam ne moom nga yaakaar ngeen nekk di dund ci kaw suuf su amee lu baax boppam la koy jox ak ay doomam. moo koy dunde ak ay doomam yow mi nga xam ne yaa ko topp suba ngoon guddeeg bëccëg ci ko liggéey loo am jox boo feebaree yoonam boo deewee sax danaan yëguma ko dañuy ñëw ne ko sëñ bi diw dee na mu ne kañ la dee ndax denc nañ ko ko xamul nag ba ngay feebar xamul ba ngay dee xamul kañ lañ la denc kooku. Barfakal, fakal la allah li ma lay wax moy da nga ku mer lu len waaye wax ngeen mer kini nee maham ma life, na ku lay laay nañ ma laay sama gat newu ci dëgg di wax bëggu leen dëgg-dëgg waxuma lu bon waxuma lu ñaaw dama len di ye mais yeen ay dof ngeen ye len taxul ngeen yeewu li ngeen di def taxul ngeen ki ña ngeen il le mérite parce que dof bu top nit nit ko mérite wonako dof bu ñëw fekk nit ne ko yow laa bëgg